الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمضات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما kon asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk di leen jox seen wàccuwaay euh, tey ñu dellusi ci seen émission bi nga xam ne mooy laay biirante ci mbindum sëriñ bi nga xam ne sëriñ Moustapha Lo mi toog moo ko faral di def ajjuma bu jot fii ci Touba Argentine TV kon muy émission boo xam ne bu am solo la ci mbindum sëriñ bi kon tey ñu dikk ci ci thème boo xam ne euh, lépp ci biir mbindum sëriñ bi la waaye day doon thème boo xam ne dafa xaw a spécial mu jëm ji maanaam màggal gi ndax ku ne xam na ne ci màggal gi nga xam ne moom lañ jublu si eh, moom rek mooy li nga xam ne moom la ko tedd ki mës a woote ne def ñëw leen képp koo xam ne sama mbég sa mbég la sante la ma yàlla mm-hmm. ndax ku ne xam na ne ba coono ya di am mm-hmm. euh, maanaam ba ba muy nekk ci ay jafe-jafe mm-hmm. fu nekk ñu yóbbu ko fa mësta onk mësta woo kenn ne ko kaay sama wet maanaam suñ ma tegee lii ma nopp lu moom ñu teg la lee koo def lépp dakaa tegoo ngir ñun jaam yi kon bu muy demee ba nga xam ne lépp jeex na mu mu mu boppam nag ci sant borom bi subhaanahu wa taala woote képp koo xam ne ak mbégam sa mbég la nga sant la ko borom bi subhaanahu wa taala teewul nag ñu xam ne moom mos la jóg ci sant borom bi subhaanahu wa taala ndax ku ne xam na ne xasidaam yi euh, soo ci xoolee bëri na ay xasida yoo xam ne ay xasida ay cant la mm. ndax ni mu ko tëggee zikru ni ci amee maanaam man am ji noonu la ci suqlu amee kon tey ñu ànd ci tamit ak euh, suñu sëriñ muy sëriñ Moustapha Lo mi nga xam ne mooy doon faral def émission bi saa su ne kon sëriñ Moustapha ñu bàyyi ko mu nuyoo ak mbokk internet yi euh, ba noppi ñu doog dugg ci waxtaan wi kon sëriñ Moustapha bismillah jërëjëf aoudu billahi min ashaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli iftah alayya rabbi zidni ilma washrah li sadra wa hab li fahma waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida saddid lisaani nawwir janaani saffi amaani wa zid baraayi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk jullit yi mbokk taalibe yi baaxoo ànd ak ñun fii ci Touba Argentine TV ajjuma bu jot ci seen émission bi tudd Labirante ci mbindum sëriñ bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi saaxibul fadila al cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na su borom gën a guddal dolli guddal aw fanam te dolli ko ak wér di ko ñaanal képp koo xam ci nii yéene nga ko rek ñu ngi la koy ñaanal ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanale di ko ñaanal mboolem jullit ñëpp rek suñu xaar yi lay eh, jagleel am nuyoo di am mbégte bokk yow jotaay bii gën a amati mbégte ci weer wii ñu nekk nga xam ne warul si waxtaanee lu ko génn ay xasaa isam nga li weer wi jagoo bu ñu tuddee weeru safar xel yëpp day dem ci Serigne Serigne Touba mhm. bu ñu tuddee Serigne Touba ci weeru safar rek xel yëpp day dem ci màggal. Mhm. kon ñu fas yéene ànd ak yéen kon tey waxtaanee ci e, tomb bu am solo bi nga xam ne daanaka ku ku génne ci màggal dara du fa des. Mhm. nga xam am daanaka mooy mooy tënk mooy tënk màggal. Mhm. maanaam loo gis ci màggal rek bu fekkee ci màggal dëgg la bokk boo ko xoolee da nga ko gis ci biir tomb bi ñuy waxtaanee muy ak cant. kon ñu ngi. Euh, sàkku ci mbokk yëpp yaakaarloo ñun tey jii incha allah tabaaraka ngeen fas yéene yaatal euh, jotaay bi euh, partage vidéo bi ba nga xam te ni kenn ku nekk rek loo ci dajal muy muy njariñ da ko koo yaatal ba sa meneen mbokk man man gën ci mën a mën a mën a kon loolu lañuy ñuy ubbee di nuyu suñ suñ suñ góor di sant yàlla bu baax baax ci wàkkale ci kër gi. ak it euh, bi nga xam ne nii xëy na daanaka léppam euh, jox na ko suñu diwaan la. Mhm. maanaam jotaay fi def lépp daanaka lépp suñu diwaan la. dara gën dara dara dara gën ko kon nag incha allah tabaarkalla euh, ci loolu lañ fas yéene lañ fas yéene wax fas kon mu mel ni sëñ Moustapha. Mhm. yaakaar naa ne ku ne màggal. Mhm. comme ni nga ko waxee. ku ne safar. maanaam saa su ne sax xel yëpp dañuy dem ci ku tedd ma si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul radiyallaahu mm-hmm. Mm-hmm. ndax weer yi bari nañ mm-hmm. waaye weeru safar moom su ñëwee maanaam ñun murit yi dootuñu am sago waaw suñu lépp rek dañ koy tënk ci màggal gi aw dootuñu am beneen soxla tamit bu dul màggal gi waaw kon euh, ku ne màggal tamit mm-hmm. ne ak cant mm-hmm. waaw ku ne màggal ne ak cant mm-hmm. eh, mu mel ni ak cant nag dees na dees na ko def ci ay ci ay xeet ndax ku ne xam na ne cant cant dees na cant sant yàlla ci di ko jaamu ci julli dees na sant yàlla ci njot sa kurus maanaam dees na sant yàlla tamit ci di berndeel mbindeef yi hmm. nga xam ne li ngay def hmm. ak jaamu yàlla la waaye day dellu ci mbindeef yi mu mel ni boobu nag jàpp naa ne moo ëpp solo ci xeetu cant yi ndax cant bi nga xam ne hmm. da nga koy def ba noppi mm-hmm. njariñ la dellu ci sa moroom moroomi mbindeef yi mm-hmm. yow boobu benn cant ëpp ko ci solo waaw kon mu mel ni sëñ Moussa Ba tey mm-hmm. eh, suñ dee xool wàllu cant suñ dee la ku tedd ki maanaam moom laataa muy woote màggal bi eh, naka la daan sante borom bi subhaanahu wa taala jërëjëf eh, sëñ Xaadim sëriñ Tuubaa képp ku koy wax rek jël dara la woy def loo xam te nii jukkiyoo ko ci alxuraan moom daanaka léppam alxuraan ndax alxuraan bu ñu fàtte ne mooy umul ulum lay xam-xam yépp mooy ah, ah, mooy alxuraan te lépp lu waay di jëf rek ci xam-xam la te day alxuraan mooy ballukaayu xam-xam kon sëriñ bi lépp lu mu def rek ci biir alxuraan euh, la la la tënku ba jiitu mooy tawxiid sëñ bi dafa uh, wéetal yàlla. Mhm. te wéetal yàlla googu la ca jiitu yàlla dafa gis dafa fekk yàlla wéetal boppam. Mhm. yàlla jàppal boppam ne moom rek mooy yàlla. mooy yàlla waaw. boo demee ci suratul baqara. Mhm. da nga fekk ca xisbu qulaa unabbiukum yàlla su morom di wax naan shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti laa ilaha illa huwa al azizul hakim yàlla foofu dafay seedeel boppam ne moom moom yàlla ci boppam. Mhm. mi ngi seedeel boppam ne moom rek a yàlla. moom rek a yàlla. Mhm. xam nga kooku foofu moom dégam yàlla seedeel na boppam loolu ah, moom moom moom bu ko fi yëpp commencé bañ a def it. Mhm. dara wàññi du ko wàññi dara. waaye yëmul foofu. bi yàlla jàllee seedeel boppam ne moom rek a yàlla. wéetal boppam. dafa xool ña topp ca moom ña nga xam ne ñu ëpp importance ñoo ñoo ko niru ko sax ñu gën a am importance ci moom. Mm-hmm. muy malaaka yi. Mm-hmm. mu ne ñoom tamit malaaka yi it. Mm-hmm. seede nañ rek. yàlla rek a yàlla. annahu laa ilaaha illaa huwa wal waaye bu yàlla jàllee. ginnaaw wiitale boppam malaaka yi jàll wiital ne yàlla rek yàlla. dafa am benn catégorie am importance. ci doomu aadama yi lépp moom la jiital muy wa ulul ilmi borom xam-xam yi. ndax yàlla. pour nga wiital ko def euh, taw xi taw xiital ko foog nga koy xam. waaw foog nga xam ko nga xam yàlla foog nga xam ko. doo ko jox wàccuwaayam loolu nga jox naa la sa wàccuwaay nit ki da nga koy xam doo ko jox sax da nga koy xam doo ko jox wàccuwaayam waxuma la nag euh, bu toll suñu borom. te suñu borom kenn mënu ko jox wàccuwaay ba mu yellool. Mhm. ku raw borom borom borom borom xam-xam. Mhm. bu ñu wax borom xam-xam rek mooy ku xam mhm. yàlla xam euh, li yàlla bëgg xam li yàlla tere. wa ulul ilmi la ci teg mhm. ñoom tamit seede nañ ne yàlla rek a yàlla buñ ci yemoon donc kon nii mhm. keneen bu mbooleem mbindeef yëpp rek maase woon mhm. weddi yàlla it maanaam tey yàlla doon doon doon doon doon doon doon kenn te gis nga euh, wàllu tawxiid boobu histoire yi bari bari da ci ñëw ndax boo xoolee ñu ëpp ci mbinde mbindeefi yàlla yi. Mhm. gëmul yàlla. boo gisee alxuraan boo gisee yonent yi yu fi jiite woon ñëpp. Mhm. buy nekk li seen histoire ak seenu nit. Mhm. fa muy jeexalee histoire dana ne wa maa kaana aktharuhum mu'miniin rek lay lay lay jeexale boo demee ci histoire yooyu nga xam ne koo teftal teftale kaddabat aadun mursaluun idh qaala lahum axuuhum huudun alaa tattaquun. innii lakum rasuulun amiin fattaqullaaha wa atii'uun ba Aad ba ba ba ba Huud mhm. di woo nit yu Aad mhm. di leen woo ngir ñu ragal yàlla xamal leen moom ndawul yàlla nii la ko rasulul amin dam leen digal la leen fa taqullaha wa atii'uun ragal leen yàlla ca topp jëm li ma leen di digal ngir ragal yàlla ca topp ma wa maa as'alukum alayhi min ajrin laaju ma leen euh, ak pay mhm. in ajriya illaa alaa rabbil aalamiin waaye foofu histoire ba di jeexee wa maa kaana aktharuhum mu'miniin lay lay lay ngay ngay ngay jël. du ñàkk nag ñu dugg ñu yàlla dafa feexale. waaw mais mais ña ëpp moom. wa maa kaana aktharuhum mu'miniin ña ëpp moom maanaam gëmuñ gëmuñ gëmuñ ko. mu teg ci kazzabat samuudul mursaliin. Mhm. waaye wa maa kaana aktharuhum mu'miniin lay lay lay jeexal bi. Mhm. kazzabat qawmu luutin mursaliin. Mhm. wa maa kaana aktharuhum mu'miniin. kazzabat asxaabu laykatil mursaliin wa maa kaana aktharuhum mu'miniin kon nga xam ne yonent yooyu doon ñëw yëpp ci tawxiid lañ. tawxiid lañ doon lañ lañ lañ lañ woote. waaye Sëñ Tuubaa dafa ñëw maanaam yàlla fa mu teg tawxiid mu nangul ko nangul loola. moom la jiital ci ak jaamu yàlla maanaam tawxiid da koo jox wàccuwaay bu réer réer mhm. ci jaamu yàlla yi boo demee ci euh, xasidaan bu wax at taw wasilatu am na fu mu cay waxee ci wesar mhm. ne allahumma inni ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika mhm. wa malaikataka wa jami'i xalqika annaka anta allah mhm. <laughs> wax ju yéeme la doy waar yow yàlla jël naa la comme témoin yow yàlla jàpp naa la témoin ci li may bëgg a wax mooy yow dong sax doy nga ci waaye damay jëlaale sa malaaka yi nga xam ne ñoom wóolu ba dénk leen aras ñu téye ko. wa ashhadu hamalata arshika waaye dama ciy boolewaale sa mboolem malaaka yëpp sax. Mhm. yor yore mission wa malaa'ikataka mhm. waaye nag maa ngi jëlaale mbindeef yëpp yëpp yëpp comme comme comme témoin. Mhm. wa jamii'al xalqika li ma leen di seedeloo mooy ànd ak àndal li ma leen di bëgg ñu ñu ñu ñu seedeel ma ko daal. xam ko mooy yow rek yaay suñu borom xam nga fi loolu boo ko waxoon maanaam day doy sëkk sëkk bu ñu bu ñemoon ci loolu rek. day doy xam ne Sëriñ Tuubaa moom mm-hmm. yàlla jox na ko wàccuwaayam ci kenn ko. Mm-hmm. xëy na loolu sax du du thème bi dëgg-dëgg. Mm-hmm. ndax mënoon nañu ci indi lu bare bare bare bare. waaye ay da am solo. da ciy am solo ñu jiital ñu ñu ñu jiital xam fi sëriñ bi jaar ak suñu borom. fu mu teggoon suñu borom. ak la ci njiitu nga xam dafa xool mu mu jiital ko. mu jiital ko waaw ba noppi gañe gañe mi ngi noonu. waaw nga ne koon sëriñ bi xëyulu xëy rek hmm. euh, maanaam ñu ne dafa xëy a xëy rek dem géej nii liggéey nii déedéet waaye dafa njëkk fi nga xam ne foofu la nit ñi di njëkk a rawante mooy tawxiid nga xam ne moo jiitu mooy fondement bi voilà xam nga ab tabax moom boo boo fondement boo fondement rek la tabax xam ne nekk bu tax ba ñëwee daaneel ko bu tax ba ñëwee daaneel ko waaye taw fondement bu bu dëgg bu dëgëree hmm. du ñëw rek attan attan attan na ko boo gisee yorente yëpp boo xoolee seen mission moo doonoon daanaka la ci jiitoon mooy taw mooy taw mooy tawxiid tawxiid hmm. ko ci yonent yàlla Ibrahim bi nga xam ne mooy maam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen li mu dajoon lépp ci woo nit ñi ñu wéetal ñu wéetal ñu wéetal yàlla boo gisee yeneen eh, yonente yi yaa sama daa xaaxam saalihan qaala yaa qawmi ubudullaha maa lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun yaa qawmi laa as'alukum alayhi ajran in ajriya illa in ajriya illa ala allazi fatarani afala taqilun maanaam dama leen di woo ngeen wéetal yàlla bëgguma ci ngeen fay ma ngeen fay ma fay nga moom ci yéen lay dellu lay dellu si waat voilà waaw ah. tekki nag waaye xam istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraaran la ma ci la ma ci ci ci ci boobu mhm. mooy fu man qaala inni inni ushhidu llaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuuna min duni mhm. ba mu leen di woowee ñoom ñëpp ñu euh, mhm. man bàyyi daal leen fi def waaye man li ma man man mii dina woo man maa ngi seede ne yàlla rek yàlla. waaw seede ne man daal yéen ci li ngeen di jàmm. ànduma ci ànduma ci daal nii ak ashhadullah maa ngi seede ne yàlla. Mm-hmm. washhadu na ngeen seede yéen tamit andi bari mun maa na ngeen na ngeen ma seede ne li ngeen nekk di ko jàmm di di ko bokkal yàlla man man nekk man nekk man nekk ma ca. loolu dañ ko rek. Mm-hmm. ngir xam sëñ Tuubaa ne lu mu lu rek. Mm-hmm. loola lu am importance la ca suñu borom rawatina ci biir ci biir ci biir ci yi jaamu yàlla yi. li li ñuy waxtaane tey maanaam cant wàccuwaay bi nga xam te nii am na ko ci biir alxuraan yàlla suñu borom dafa indi aaya yu baree bari ci alxuraan di ci son di ci son di ci son ñi doomu adama yi ci ñuy sant mhm. boo gisee ndeysaan am na léegi siñ saal siñ saal bi ko faral di wax mhm. bu daan soññee màggal gi mhm. suñu sëriñ Saalifa yàlla yàlla suñu borom yokk yàlla suñu borom doole ngërëm yàlla suñu borom boole taas ñu ci barkeem daana wax aaya boobu nan i'malu ala daawuda shukran i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur aaya bu doy waar boo xam ne si mbir dana yéen waa niti daawud yi jëf ngir sant ngir sant ngir sant ndax wa qalilun min ibadiya shakur ndax sama jaam yi kët ñu néew a néew ñoo sant ñoo ci ñoo ci sant ak cant cantaakoon bëriwul cantaakoon maanaam nit ki nag nga mën nga man ngaa kii waaye nag maanaam doon doon cantaakoon ci ñu la koy wooyee te muy dëgg ñu lay wooy aw tur te tur wa doon dëgg mm-hmm. ngay sant yàlla ci say jëf mm-hmm. di sant yàlla ci say wax di sant yàlla ci sa mm-hmm. di sant yàlla ci say nelaw di sant yàlla ci sa yëngatu mu mel ni daal ñaxtu gi moo ëpp cant gi daal moo ëpp cant gi moo ëpp cant gi te loolu mooy maanaam jàmbat bi jàmbat safaanab cant la nit bu baree jàmbat rek maanaam du ab sant kat nit ki bu bëree ay jàmbar rek doo am sa doo am sa doo am sa doo am sa ndigal mm-hmm. nga xam ne kon foofu yàlla aaya boobu boo xoolee nga xam ne yàlla ak cant ku ku ku soxla mm-hmm. yaamalu aala daawuda shukran mm-hmm. maa ngi leen digal ngeen jëf lu baax ngir sant ndax sama jaam yi bëriwul ay santkat waaye da nga fekk nga xam ne kon foofu dañ fay dégg ne maanaam ak cant maanaam yemul ci wax rek déedéet toog rek naan maa ngi sant maa ngi sant kon mu mel ni ak cant euh, suñ bëggee mu gën a jëmmee mm-hmm. faaw rek ñu koy jëf jëf ci jëf foofu baatu baatu ba amal voilà maanaam euh, jëf la ko suñu borom la ko suñu borom euh, jëmmale waaw koy foofu amalu ala daawra shukran waaye da nga fekk lu bari bari suñu borom di indi ay détails ci alxuraan mm-hmm. ne na ngeen def bu ngeen xoolee lii bu ngeen xoolee yi ma leen di junj rek. Mhm. da ngeen ci fekk loo xam te ni maanaam. dañu ma ci sant daal lu ma ci sant suñu borom moo ci moo ci nekk. Mhm. boo demee ci suuratul waaqi'a mhm. da nga fa fekk maanaam afara'aytumul maa'a allazii tashrabuun. antum anzaltumuuhu minal muzni am nahnu munziluun. law nashaa'u ja'alnaahu ujaajan. <laughs> falawlaa tashkuruun. da nga fekk suñu borom di wax naan yéen yéen doomu aadama yi xanaa gis leen ndox mi nga xam te ni. yéen a ngi koy naan. Mhm. ndox bi ngeen naan boo taxee ndax naan. Mhm. xalaata ndox mi fu mu jógee. ndax yéen ñii di ko naan doomaar yi di ko jëfandikoo yéen a ko wàccee ci kaw asamaan sam jóge woon pour pour wàcce ci suuf ngeen mën koo jëfandikoo déedéet. ndax yéen a ko wàccee wala man man man man yàlla maa ko wàccee. xam nga loolu laaj boo xam te ni laaj. Euh, laaj boo xa laaj laaj la boo xam ne jawaab bi moom daanaka. xam naa mi ngi ci biir waaw. waaye nag foog mu indi laaj bi. Mhm. antum anzaltumuhu ndax yéen a ko wàccee ko ñi koy naan. am na am na yàlla ñii man man man yàlla maa maa maa leen ko wàcceel. Mm-hmm. waaye bi ma ko mu jógee ci asamaan si bu ma bu ma neexoon man yàlla ma def ko muy ndox mu naqari ba nga xam ne bu ñu koy daan da ngeen di gàññi rek. Mm-hmm. la ma ne saa yoo jaaxal naa ko ujaaja. Mm-hmm. wér te su boobaa tamit duñ ci mën dara. am na ci dëkk ndox yoo xam ne nii kenn mënu ko naan am ndox yoo xam ne nii xoromus kese la. am na ndox yoo xam te ni dafa naqaree naqaree naqaree ba nga xam te ne si bii. daa am euh, bu dee xool suñu ndox mi nekk ci àdduna sépp mel noonu. duñ a bañ. ah duñ ci am solution. waaye fan la suñu borom daanelee ko bu ngeen xoolee xéewal googu ma leen defal ci ndox. Mhm. ba ngeen gis ko. Mhm. fan laa tashkuru na lu tax du ngeen sant nag. Mhm. kon nit ki buy naan ndox sax war na xool. xéewal gi ko yàlla defal ci ndox mi. ci ndox mi waaw ba mu war cee sant waxuma la euh, bu duggee ci aw yaramam jariñ jariñ nga ko nga ko jariñ mm-hmm. ngir mu continuer ak dundam mm-hmm. waaye neex di mu gin ak am ndox neex sax fi nii maa da ci war a bàyyi xel sant am solo te ni kii noonu la ci l ci leneen man ndax fi nii ndox dafa bari dafa bari fépp ba nga xam ne nag nit ñëpp a ngi koy naan waaye dañ ci bàyyi xel mm-hmm. waaye xiiwal ak ci goo xam ne sëñ bi saa yi euh, nit xamoon li ko ci yàlla defal rek war na sant yàlla sant yàlla goo xam ne nii maanaam euh, du am fu mu yem fu mu yem ndax boo xëyoon di naan fi nii man naan naanal lépp lu am liquide. waaye la la ndox di jariñ lu dul ndox mën la ko mën la ko jariñ nga xam ne ndox moomu tamit sax mm-hmm. maam maam ci ci cant gi ci war a cant sax maam fës gi muy gën a fës mooy ndox moomu ay njariñam dafa dafa weesu ci naan maanaam dafa yemul ci jël ndox naan kese nga xam ne ndox tey li muy jariñ doomu aadama ci adduna bi yaakaar naa ne amut leneen loo xam ne dana ko ko jariñ waaw ci ci tolluwaay ci tolluwaay ci wér-gu-yaram waaw yaa ngi ci xëy di sangu di ci raxas la nga nekk ci naaj yu tàng jër la ñëw man waaw kay mi ngi noonu féex féex loog lu waaye boo xoolee maanaam alxuraan. Mhm. da nga gis yàlla suñu di santaane bu baax a baax baax ak cant. Mhm. boo demee ci suuratul baqara gi ñu doon wax léegi da nga fekk ci mu naan fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Mhm. yéen doomu aadama yi. fàttaliku leen ma ma fàttaliku leen man man yàlla. waaye washkuru li wala takfurun sant leen ma te bu leen bu leen bu leen bu ngeen xoolee ba gis li ngeen li li ngeen jëfandikoo ak li ngeen doon ak li ngeen mel mm-hmm. la ca mat a sant yàlla sant leen ma ko waaye bu leen ko jëfandikoo ba noppi rek ne boo ko defee ak wedd lay doon. Mm-hmm. waaw boo ko defee ak weddi bu wér lay doon ak wedd ak wedd ak wedd lay doon. te te fi mu ne nii suñu xaadim mm-hmm. feebar boo xoolee ca la bu shifaa yi da nga fekk suñu borom di wax naan. Euh, ba mu doon waxoon wa anzilil naf'a makaana durri wa anzilil xayra makaana sharri wa anzilil ama makaana jëli waaye fa mu fa mu daaneele wa anzilil shukra makaana kufri la la la la daaneele woon. Mm-hmm. wa anzilil shukra makaana kufri yow yàlla su borom yàlla na nga wàccee mm-hmm. mm-hmm. a kon foofu. maanaam da ngay gis ne. reconnaître maanaam reconnaissance. dafay am solo exactement ba bàyyi noonu reconnaissance. voilà da ciy am solo lool nga xam ne tey. sëñ Moustapha moo waral lii. Mm-hmm. moom moo def lii nga nangul ko ko. nangul ko jëmm nangul kooku ko googu rek. Ah. maanaam moo lay yóbbu ci nga nangu ko sant. sant waaw lépp loo xam ne nii yaa ngi koy defal euh, rek. Mm-hmm. Euh, ci ci yàlla la jógee jaar ci doomu aadama kon loo sante si doomu aadama rek war nga koo sante yàlla lépp loo xam te nii dafa ñëw euh, directement yi nga xam ne sa say euh, sabablu moo moo moo ci la jaaree ba agsi ci yow mhm. loo ci amee rek war nga war sa koo sa borom mhm. waaye cant gi mhm. mi nga tàmbalee si jëmmi jëm si jëmmi bopp ci yow si jëmmi bopp yi maanaam yow ci sa jëmm bopp rek waaw yow ci sa jëmm bopp rek maanaam ni la suñu borom defal soo xoolee sa bopp rek jàpp naa ne am na lu bare bare bare loo xam ne war na ko cee sant lépp waaw boo xoolee ci suratul mulk am na fu suñu borom yoo xam ne afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahdee mhm. aman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim mhm. waaye fu mu déggee da ne qul huwa allazi anshaakum mhm. wa jaala lakum samaa wala basaara wala afidata daa ne qalilan ma tashkurun qalilan ma tashkurun li ngeen sant bëriwul de bu ngeen xoolee leneen yàlla defal lépp lépp lépp lépp lépp lépp da ngeen a waroon a dëkke sant. Mhm. waaye xalilan maa tashkurun parce que bu ngeen baatu yàlla booy wax doomu aadama yi. Mhm. xamal ne maanaam euh, li ngeen ko li ngeen ko war a sant xaaj ba xaajal ba sant leen sant leen ko la muy jëfandikoo mooy lu néewoon yow ngeen ngeen ngeen cee ngeen cee. ngeen ciy sant ngeen ngeen ci def. Mhm. la ma ca yaayoo yaayoo. lu néew a néew néew ngeen ngeen ngeen ci def ngeen ngeen ci defagul. Euh, kon boo benn benn ngi noonu. da nga fekk ci alxuraan it suñu borom. di eh, nettali xissab Luqman. waaw ah, Luqman waaw. ne wa laqad aatayna Luqmaana al-hikmata mhm. an ishkur lillah. Mhm. wa man yashkur fa innamaa yashkuru li nafsihi. Mhm. waaw. wa man kafara wa man kafara fa inna llaaha ganiyyun hamiid. Luqman solo ñun su borom defal nañ ko defal nañ ko xikma. waaye dañ ne ko yàlla da koo digal muy sant. waaw muy muy amoon ak yeewute. sax. Mhm. xese xese xese xese sa yoo doy waar la ko alxuraan an yàlla su ma doon ne ko mhm. santal. ne ko wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. ku mhm. sant boppam la boppam boppam la ko def. li ko la fi def waxe boo boppam. <laughs> boo santee. njariñul cant la. ci yow lay si ndax yàlla dana la ci fay ab tuyaaba bu mhm. jégg ne tuyaaba ji ci yàlla lay dem déedéet tuyaaba ci yàlla lay la jógee mhm. jaare ci cant nga mu cant mhm. mu dellu si ci yow kon mu mel ni maanaam cant ñun soo seetloo euh, lu li ñuy sant daanaka dañuy xaar ba jékki-jékki rek ñaan yàlla dara mu defal ñu ko mm. ñu sante ko ko ci loolu mu mel ni kon cant googu mm. moo waral jàpp naa xalilan maa taskuroon xalilan maa taskuroon mm, waaw ndax li ñu war a sante borom bi subhaanahu wa taala dafa bari ndax euh, wax nga ko léegi ci aaya bi tey su ma toogee sama bët yi di gis may wax ni ñu may dégg euh, may ba bëgg a jóge fii dox mën a déplacé wu dox samay soxla yooyu rek yaakaar naa jar na cant lépp lépp ak cant la gis nga sa euh, doomu aadama yi mm-hmm. ni nga mën a yëkkati sa loxo bi euh, sa kàttan bopp bopp gi mm-hmm. may la a yëkkati sa bi te kàttan googu ruufoo ko sa bopp sa bopp mm-hmm. am na ñoo xam te ni tey jii yoruñuy loxo na tey ñoo xam te ni yoruñu nopp yu ñu déggee am na tey ñu gisee na tey jii ñoo xam te ni ñu tànk yu ñu doxee am na tey jii ñoo xam te ni maanaam euh, dara lu ñu lekk wala dara lu ñu naan sa sa leen dara soxla dara. Mhm. yàlla yàlla may la xéewale yëpp ci sa jëmm ji. Mhm. maanaam foo toll war nga di ko sant. di ko di ko di ko di xalaat xéewal yooyu. Mhm. di ko ci delloo njukkal di ko ci delloo njukkal moom yàlla. di ko ci cant lam lam lam lam ci lam jël ndax moo tax loolu moo tax man fi nii. boo xoolee rek loolu xéewal yooyu rek bu doon loolu rek la la yàlla may. maanaam da nga ko war a dëkk dëkk dëkk sant. da nga ko war a dëkk sant bu bu ca bu weesoo loolu nag dolli la ci yeneen xéewal. maanaam euh, te. waxuma la yeneen xéwal yi ma la ci dolli waaye xéwalu gim euh, la may ci sa jëmm rek. cant mm-hmm. cant ko cant cant cant ga nga ci yàllu. Mm-hmm. waxuma la nag yeneen euh, xéwal yi mu yi mu yi mu ca dolli. Mm-hmm. gis nga boo demee ci alxuraan da nga fekk ci sërut nan li. xisab euh, Souleymane. waaw ah. ak Bal Balqis. Balqis. wala xalaatee naa Daawuda wa Souleymane. ilman wa qaala alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almuminin ñun yàlla may nañ Souleymane Daawuda ak Souleymane sax la wax may nañ leen xam-xam ba leen yàlla may xam-xam boobu lañ wax ñoom ñaar ne alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin ñu ngi sant yàlla mi nga xam te nii moo ñu moo ñu gën a de ci lii mu ñu may te muy ko ñeneen mu gën a ñu ko ci ñu bëree bëri ci ci ci jaamu ala kasir min ibadihi muminin mm-hmm. waaye wa warisa mm-hmm. xam ne loolu loolu daanaka du du maanaam reconnaissance bu am solo la ndax jàpp lu leen yàlla wax ñooñu li yàlla may rek lañ ciy njëkk a génne mooy cirub cant ga ñu teel ko delloo delloo seen seen seen seen seen borom ndax solo mooy mm-hmm. maanaam nit ki mbindeef bi doomu aadama bi soo xoolee ci sa bopp ak ku mën di doon rek am na lu la lu la yàlla may. lu mm-hmm. mayul sa morom lu mayul sa morom kon loolu rek jar na cant. ak tafdil dafa dafa dafa dafa dafa dafa mm-hmm. am doomu aadama bu nekk rek. Mm-hmm. am na lu la yàlla may loo xam te ni xañ na xañ na ko sa morom tax nga ye nga yeye ko. waaw ngay. alaaka alhamdulilah li si faddalanaa. nga xam ne tafdil baatu tafdil la la jël. nga xam ne am gënale nañu. waaw defal ñu gënale lii may ñu may may ñu li mu ñu may. ala kathirin min ibadihi mu'min waxul nag ala waxul nag ala jamian ala ja ala jamian mu'min waaye ala kathirin la wax. waaw ci ci lu bëree bëri ci ci ci ci ci jaamam yi. bu bu waxoon na ala qalilin min ibadihi sax war na war cant ko war na ci waaye ala kathirin min ibadihi mu'min la wax. waaye mu andi xisa ba woore se Souleymane Daawud waqaal waqaal yaa ayyuhan naas allimnaa mantiqa at-tayri wa uutinaa min kulli shay'in inna haadhaa lahu al-fadlu al-mubiin am xisab Souleymane boobu. na mu continué woon nga xam ne Souleymane yàlla da ko defaloon mu xam li njanaaw yi di wax. waaw mhm. lim naa mantiqa tayri mhm. li njanaaw yi di wax yàlla da suñu borom da koo xa jàngale ba mu xam. tàggatal bu picc sabee. Mhm. mu xam la lam jub lam jublu lam jublu ci sab ga. waaye nag tàggatal ko ngelaw li. waaw tàggatal ko ngelaw moom ne wa wutinaa min kulli shay'in yàlla. bayilu ma dara. mu ne inna hada la huwa al fadlul mubin lii ma yàlla may daal. mooy fadlul mubin daal mooy mooy mooy loolu ngëneel lu leer nañ ñu moom loo xam ne yàlla man. daf ma koo jagleel. te lu waaye bis eh, ñëw mu ne wa hushira li Suleymaana junuuduhu minal jinni wal insi wat tayri fa hum yuzaun bis ñëw Suleymaan toog. Mhm. Eh, taalibam yëpp wër ko. wër ko waaw. ci jinne yeeg nit ñeeg. Mhm. ak njanaaw yi. Mhm. ba xissa ba continué xataa izaa ataw alaa waadi namli qaalat namlatun yaa ayyuhan namlu udxulu masaakinakum laa yaxtimannakum man wa junuuduhu wa hum laa yash'uruun <laughs> ñu dox ba euh, am am xorondom. <laughs> xorondom yi waaw seen seen seen seen mbooloo mi di ñëw mën leen mu wax moroomi xorondomam yi. ñu mhm. leen daw leen dugg ci seen seen pax yi Suleymaan a ngi ñëw. ak ak ak ñi mu su ngeen yeexee tuuti rek dana leen joggi moñ a xeleen te te te te te te du ko yëg. Mhm. laa yaxtimannakum Suleymaanu wa junuuduhu wa laa yash'uruun. Mhm. du ci bàyyi xel sax du ci bàyyi xel waaye gis nga loolu tax na. fa tabassama daaxikan Souleymane bi mu déggee xornam wax loolu. dafa dafa mooñ mooñ daa di ree. fa tabassama daaxikan min qawliha mhm. waaye la mu wax moo ne wa qaala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yàlla yàlla ma may rek. Mhm. ma sant. Mhm. xéewal gii nga xam te ni. moom nga ma defal defal nga ma ko. nga xam ne ma mën a ma mën ma mën a xam li eh, xornam yi di wax. li picc yi di wax. li li li rab rab yëpp di wax ma man ma mën koo xam xéewal googu yàlla nag ma defal rek ma man la ma mën la ma mën la sant nga xam ne lépp daal saa su gudd lu lu ko diggal daal da koy delloo ci cant borom. cant san borom cant nga xam ne moom ñoom ñoom moom boo gisee wàccuwaay bi ñu joxoon cant. xam nañ ne lépp lu leen yàlla may rek. Mhm. la ci gën a yelloo ci delloo ko yàlla mooy cant. mooy cant rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka mhm. waaye wa ala walidayya. Mhm. am solo la wa ana amala saalihan tardaahu ñaan nga dafa continuer di ñaan ndax ba mu ñaanee yàlla may may ko. xéewal bu mën a sant euh, xéewal yi mu ko defal. yi ko defal waaw. may ko xewelu man koo sant cant gi war ci ay waajuram. Mm-hmm. da koo ñaanaale it yàlla nag ma ma yàlla ma may ma sax ci def lu baax. Mm-hmm. loo xam te ni su ma ko defee dinaa ci mën a amee sa ngërëm. Mm-hmm. wa ana amale saalihan tardeexu fu ma nekk rek yàlla nag ma yàlla nag ma tawféexale ma mën a sax. ci loo xam te ni maanaam euh, sa ngërëm rek la la la mën a jur. ci ci ci ci jëf jëf ju baax. waaye ne ko wa adxilnii bi rahmatika fi ibaadika saalihiin maanaam xay na yeyoo ma ko sax waaye boole ma ci si jaam yu baax yi rek ngir defal ma ko ngir ngir sa yërmande xoolal ma tolluwaay boobu rek waaw gis nga euh, suñu xare maa ngi jégalu xam naa ne am nga laaj yu bare sax yu ñu war a kii émission bi moom maanaam ci màggal gi li jëm waaye fokk ñu euh, xiste yi mënu si koo ñàkk ñàkk waaye boo xoolee wa tafaqada tayra la ci teg xam nga mooy tax ñu orienté wu. exactement ba xam ba xam maanaam valeur u cant. exactement exactement fi ko suñ borom teg ak suñ tubaa ni mu ko ni mu ko jëmalee. dañuy laytaal dañuy laytaal di ñu rek seen ba nga xam ne bu ñëwee ci suñ tubaa li tax mu mu mu féete woon cant. Mhm. xam nañ fa yàlla teg cant. ak ñam ci jaarale woon ay yor ay ay ay yonentam mhm. boo gisee xista boobu dana wa tafaqada tayra fa qaala maa lii laa aral hudhuda mhm. am kaana min al ghaabiin ma day mu xool euh, picc yi daane picc moomu ñuy wax hud-hud de wala fii di ko tuddee Moussa Njubri mm-hmm. tey dafa mel ni daa ñëwul tey daa ñëwul de mm-hmm. mu daal di koy tëkku daal di la u'adhibannahu 'adhaban shadidan dinaa ko tey bu ñëwee dinaa ko duma du muy métti eh. aw la asbahannahu soo waxee sax naa ko far jaare fo jaare foofu eh, eh, rey ko waaw waaye aw la yaati inni bi sultaanin mubiin mm-hmm. wala mu andil ma lay wu leer naññ ne ma lii moo tax mu absenté woon gis nga ñetti Euh, solution la teg. Mhm. li tax nekku fi bu ñëwee dinaa ko dinaa ko ko dinaa ko caw duma yu metti mhm. mën naa wees sax caw yooyu duma ko. àgg ci faat àgg ci faat faat ko. Mhm. waaye nag mën naa ko bañ a def ci ñaar yooyu. bu ma indilee. su layalee li mu indilee lay woo xam ne lay wu jub la. xam nga foofu ak maanaam foofu lay mën a mën a yem. fa ma ko sax gayra baidin fa qaala axattu bi ma lam tuxit bihi hudd hudd daal di ñëw. ci diggante bu gàtt rek hudd hudd di ñëw daal man de xam naa lu ngeen xamul <laughs> ndax man te euh, giiru saba laa demoon mhm. wa ji min saba in benn ba in yaqin mhm. giiru saba laa demoon waaye indi naa la xibaar bu bu wóor boo xam te ni maanaam bu wér la bu mhm. ko teg xibaar yi nga xam ne tey jii kër euh, euh, xibaar yoo xam ne dañ koy dégg <laughs> parce que xibaar yi dañ koy dégg nii li may wax li may wax nii bi na ba in yaqin yaqin laa ci am daane inni wajatu imraatan tamlikuhum saba ga ma jógee day fekk naa fa aw nit ñoo xam te ni jigéen na leen moom jigéen moo leen moo leen jiite moom moom leen waaye wa uutiyat min kulli shay ndaw soosale yi manquéwul dara wala arshun azim boo ko fekkee foo ko fekkee fi ne nii hmm. maanaam yan bu rëy rëy lañ ko lañ ko lañ ko tegal mën a ñodd ci kaw nit nit ñi ñam ñam ñam jiite ñëpp toog ci toog ci hmm. waaye nag lam wax Suleymaan dana ko wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna li shamsi min dunillahi hmm. dama leen fekk waa saba ñooñu ak ndaw soosu ak nitam ñooñu ñuy jaamu lu dul yàlla nga xam ne foofu da nga fay jàngatee maanaam soo seetloo mhm. Souleymane ndaw sax mhm. maanaam yilif gëm leen yilif gëm leen yilif eh, amul daanaka ab valeur am bariwutoon exactement waaw léegi maanaam saison ba mu yoroon nga xam ne maanaam ci poñeetu àdduna la loolu tamit val taxu ko woon ñoru ko woon waaye li ko gënoon a ñor mooy bi mu nee fekk na ko ñuy jaamu jant gi ak te jaamuwuñu yàlla. exactement loolu mooy mooy li ko li ko li a kii maanaam. moo tax loolu moo ko moo ko moo moo ko touché. voilà nga xam ne fi nii loolu euh, bokk na ci li nga ci mën a jàngee it ne aw nit. Mhm. parfois léeg ñu war a dajee fenn kenn manqué. Mhm. waaye la ko manqué loo. da mhm. tax mu absenté. na doon loo xam te ni lu lu lu lu lu ko jar la waaw. ndax hudhud dane wa jettuhaa wa qaamahaa yasjuduuna li shamsi min dunillahi dama leen fekk ñu jaamu dul yaay waaye wa zayyana lahum shaytaanu a mhm. saytaane daal leen rafetal seen jëf rafetal seen jëf ji nag mhm. ban jàpp na lañ nekk dëgg la mhm. fa saddahum ani sabili mu mu tegg loolu ñeen yoon wa <laughs> maanaam dañ ci xàll bu koy def rek maanaam jërul ci ci yoon wa <laughs> fasad daxam an sabili fa hum laa yaxtadoon ñooñu gindikuwuñ maanaam xamuñ xamuñ fi fi fi fi fi fi ñuy teg seen tànk mhm. fa hum mhm. solo fi ñuy fi ñuy fi ñuy jëm xamuñ ko mhm. xam ne daal moom Souleymane moom li ko ci ñor mooy maanaam yoon ba ñu jaar bokkut ak bi ñu war a jaar bokkuñ te moom moo fi nekk yónneent. war a war a dox mission di orienté fexe ba ñëpp jaar ci yoon wi ñu war a jaar. exactement mi ngi noonu gis nga xisa bu gudd la boo xam te ni xëy na bu ñu ko toppandoo fi ne nii xëy na mën naa jël bari bari ci. émission ci émission bi. Mm. mooy. wa zayyana lahum shaytaanu amalahum fa saddahum an sabili fahum laa yahtadun alaa yasjudu lillahi allazi yuxriju yuxrijul xaba mm-hmm. gis euh, mm-hmm. la ma wax lépp lépp lépp lépp ba ba ba mën a firndeel ne. Mm-hmm. la may wax dëgg la. ndax inni waj euh, wa jiituka min sama bi naba in yaqin la waxoon uh-huh. waaw kay fokk mu andi loo xam te ni maanaam da koy wax lu leer nañ ba mu dugg ci bopp Souleymane uh-huh. maam ngir mën a firndeel ne li may wax nag naba un yaqin la uh-huh. ndax dañ leen a tam li ko xoon fekk naa fa ndaw soo xam ne moom wootiyee mi ngi ko la sey na manquéwul dara wala ha arshun azim bu bu to bu bu mbooloo toggee dañ koy tegal foo xam te ni maam bu toggee moom lu rëy rëy lay toog daa ne wa jot xaw xama xay tuddoon fekk mu ne ñu toog na rek mañ mañ mañ jortu ne ñii dañoo dañuy jaam dul jàll déet waaye wa jot xaw xama xay tuddoon dama leen fekk ñuy pratiquer mm-hmm. di def loo xam ne nii maanaam euh, jaamuwuñ yàlla mi ñu mi mi mi ñu war a jaamu wa jot a xama xay tuddoon li samsi mm-hmm. dama leen fekk ñu jaamu jant bi mm-hmm. xam ne daal maam moom moom yi muy wax yëpp ci ay ay fee yoo xam ne ay argument lay indi voilà ay argument ay fee la yoo xam ne du loo xam ne dafa dégg ne ñii nii la ñuy def waaye dafa ñëw ñëw wax teg ci jël temps ba pare jël temps am nag mm. ndax loolu soo seet loolu li mu nettali lépp mm. dangay xam ne mm. kii dafa jël temps am xool gis kii moo leen ndaw si moo leen yilif. Mm. moo gis fi ñu teg ndaw si. Mm. waaye yemu ca. Mm. xaar na ba xam ndax ñoom kan la jaamu. mu gis ne ñoom pas ñu jaamu yàlla. waaye jant beeg weer yi la si jootal. jaamu yàlla mu a a yees ci doon li chamsi. Mm-hmm. min dun laay damaa fekk ñuy jaamu jant bi. Mm-hmm. bàyyi fële yàlla waaye nag ba boo leen fekkee ñuy jaamu jant bi it. wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum seytaane da leen ne jant bi ngeen di jaamu kat mooy li li ngeen war li ngeen li ngeen war a def. Mhm. <laughs> Ah, rafetalal leen ko daal rafetalal leen yëf yi ba ba ba jaakaar noonu la. Mhm. fa saddahum ani sabili nga xam ne am la tax ñuy jaamu jant ba saytaane moo leen dévier. Mhm. fa saddahum ani sabili moo leen dévier ban wàcc yoon wi. fa hum laa yahtadun nga xam ne kon képp koo xam te ne yaa ngi jaamu lu dul yaar rek. yow ku réer nga ndax euh, al ihtidaaw euh, mooy safaanu dalal. waaw. mooy safaanu réer. mooy safaanu réer. allah yasjudu lillahi lazi gis nga euh, lam lam lam daaneel allah yasjudu lillahi lazi yuxrijul xaba fi samawati wal ardi wa yaalamu maa yaxuuna wa maa yaxuunuun allahu laa ilaha illa huwa rabbul arsil azim euh, xisa bu neex bu neex la boo xam ne nii moom waxee loolu it Souleymane dëggalu ko directement dana ko xaale sanansuru asadaxta am kunta minal kaasibiin waaw foofu foofu mu vérifier ko li nga wax lépp lépp lépp wax ju jub la ju neex a gëm la waaye nag tëbul tëb dëggal ko dana ko sanansuru danañ xool asadaqta ah, ndax li ngay wax dëgg la am contaminal gaz bi wala da ngay da ngay da ngay nar mhm. muy lu am solo na <laughs> loo xam ne maanaam lu ñëpp war a jànge la lu ñu war a jànge la suñu bindee moom ay xis ay leçon yu bare bare bari ñoo ci nekk yoo xam te nii mhm. ci diggante li hudhud di nettali mhm. ci diggante li ko Souleymane di laajaat ci diggante eh, xibaar ba mu joxe fa mu ko jëlee ak na mu ko nettalee nga xam ne foofu mm. maanaam journaliste yeeg. yëpp laasu góor yi war nañ jàngat jàngat gu am solo. yooyu dañ ko war a dañ ko information su la joxee day nga vérifier ko. in jaakum faasiqun bi nabayin. fatabayyanu fatabayyanu gis nga euh, ayat yooyu dañ ko waroon dugal ci émission euh, ci école de formation yi. Mhm, mhm. ñu koy xam xam koy xam. wala journaliste boo xam ne ni xëy na bëgg ngaa xam. Mhm. alxuraan. maanaam wàllum journalisme journalisme wàccuwaay bu mu ci am ndax eh, maa farat maa fil kitaab min shay la alxuraan wax eh, alxuraan bay bàyyiwul dara mm-hmm. bu bàyyiwul dara nag kon mbirum journalisme ci woon kon jàngale na ko mm-hmm. kon aaye boobu rek mënees mënees na ci jàngale lu luy ab journal journal eh, mm-hmm. mbirum journalisme journalisme kon nga gis ne Souleymane moom Eh, li ko yàlla defal lépp moom jàpp na ne su gisee keneen kuy jaamu keneen ku dul yàlla rek. ak cantam des na ak cantam dafa war a yónnee woote ca. ndax boo xoolee ba mu ne ko as sananzuru asadaqta dafa yónnee waat Hudhud ne ko yóbbul ma ko yóbbul ma ko yittal ma ko. Eh, téere bi lettre bi lettre bi ma ma ma may bind. Mm-hmm. fa alqihi ilayhim ko rek bàyyi ko fa mm-hmm. mm-hmm. bi eh, ne ko qaalat yaa ayyuhal mala'u Balqis dafa woon wax ni aw nitam. Mhm. daan na leen inni ulqiya ilayya kitaabun karim. Mhm. dañ ma nit fii benn lettre boo xam ci ni kat lettre bu am solo la. Mhm. téere bu bu la. daan na leen innahu mi ngi bàyyi ko ci yonent yàlla boobu ñuy wax Suleymaan. te lettre ba fa mu tàmbalee waaye innahu bismillahi rahmaani rahim la tàmbalee. waaw loolu lépp lu am solo la nga xam ne euh, looy tàmbalee dellu ci tawxiid bi nga tàmbalee woon tawxiid bi nga doon bi ñu bi ñu tàmbalee woon bu gàtt la dana ko allah taalu alayya waatu ni muslimin muy lu am solo. kaay leen jébbalu kaay leen dugg ci lislaam <laughs> muy lu am solo. <laughs> waaye nga xam ne newu fa di guddal. déedéet maanaam def leen nii ak def maanaam dafa ñëw objectif bi nga xam ne moom laa naa leen nekku fa leen hudhud nee da ngeen di jaamu jant bi. waaw kay da ngeen di kii fii leen ko rafetal li nekk ni la tawal xasib yow déedéet. Mhm. nga xam ne foofu bu ko waxoon de man day jaxasewaat eh, mhm. na leen allah taaloo alayya waatunu muslimin. Mhm. ñetti baat yooyu leen eh, eh, ne maa waa dalla ni ko sëñ ay wari waxee <laughs> waaye Balxiis dafay diisoo moom tamit gis nga kilifa dafa war a di diisoo moom tamit ndax bu mhm. diisoo wutoon mhm. mën naa topp jay nga ko yàlla jay mhm. ak euh, mbooloo moo ma ko yàlla joxit jox ñu topp ci gannaaw ba mu bañ a euh, jëfe ndigalu Suleymaan la ba ba xeex am foofa waaye moom la mu jëfandikoo dana xaalis yaa ayyuhal malaa'u aftuni fi amri maa kuntu qaati'atan amran hattaa tashhaduuni seen yéen sama gars yi sama sama taalibe yi seen ay nitam ñi ko wër ah, yéen sama taalibe yi kat laaj leen ci seen xalaat ñoom laaj leen seen xalaat mooy diisoo mooy mhm. lu am solo lu am solo ngi noonu sëñ bi <laughs> fi am rii mhm. mbir am na mbir mu ma dikkal kat maa ngi leen ci laaj seen xalaat mhm. ndax man kat du ma du ma euh, exécuté dara te yéen joxu leen ma ci seen xalaat maa kon te kuntu qaati'atan amran hattaa tashhaduun nga xam ne ci foofu tamit. Mm. maanaam maanaam kon. maanaam ni mu ni mu intéressé woon léegi. Mm. maanaam journaliste yi. côté bi itam noonu la intéressé ki nga xam ne mooy. kilifa yi autorité yi voilà autorité yi yilifa réew mi. autorité yi xam ne tey xam ne maam Balxiis foofu bu doonoon euh, góor mën nga ko tuddee Macky Sall. voilà ko mbir moo xam ne nii di ko la xamul day wa dafa war a woo euh, ni ñu ko tuddee euh, conseil des ministres. laaj laaj laaj gars yi seen xalaat seen xalaat assemblée sax ñu joxe seen xalaat ñëpp joxe seen xalaat da am solo waaw te kuy joxe sa xalaat it nga joxe sa xalaat ngir dëgg mhm. waaye ba mu laajee aw mhm. maa kunta qatan ab raxataa tashadu ne nit aw nitam taalibe foofu keroog lañ ko wax dañ ne ko xaaral nax na óoloo xootin ñun daal sëñ bi euh, balxiis daal ñun fi ne nii mhm. say taalibe leen te kattan moom yàlla sédd nañu ko wa ulu ba sin shadidin mhm. maanaam suñu arme bii ñu yor mhm. kun kun xeexal a gañe la wala amru ilayka lañ ko wax ne affaire boobu sa décision rek lañ lañ ciy xaar fan sori ma sa tamuri na <laughs> waaye da ngay ciy ne loo boo am am doole loo aw nit mu bari topp ci sa ginnaaw it boo leen laajee xalaat buñ la joxee xalaat bu bon it. Mm. war nga koo jàngat. te jëfandikoo xel mu rafet. ndax ban ko waxee loolu lépp na ko ñun borom kàttan nañ ci bari nañ am nañ doole. Mm-hmm. kon xel xel gañ gañ la. Mm-hmm. joxeel ndigal rek. Mm-hmm. la Balqiis waxoon na ne xaalat innal muluuka izaa daxaluu sa afsaduuhaa Souleymane kat ci muluk yi la bokk. waaw te muluk yi moom saa yu duggee ci ab dëkk rek. dañu koy daal di yàq rek. afsad afsad afsad afsad waa. <laughs> moom daal natt na dooleem. Ah. natt doole Souleymane. exactement ba ba mën a aar aar ñi ñu nekk ci gannaawam. exactement mi ngi noonu xam ne moom mënoon naa dem xari ji. ñu ne ci gannaawam faatu waaye defu ko. waaye dafa dafa natt dooleem ba noppi daal di aar ñi nga xam ne tamit ñoo nekk. ñoo nekk ci suufam ba nga voilà nga ba nga xam ne. loolu tamit dafa am solo. am solo gi noonu am solo la ci. li mot a jàngate waaw di fexe ba maanaam yow maanaam lu ñëw rek. nga fexe nga jëfandikoo xel. voilà te bañ a jëfandikoo kattan gi nga xam te ni. yaa ngi eh, gis ne yàlla jox na la ko. waaw di ci xool tamit. intérêt yi xam ne ñoo ñoo topp sa gannaaw. exactement mi ngi so lu am solo nga ci nga ci jàngatee sëñ bi. Eh, ci aaye boobu sax maa ngi ci ziyaare bu baax a baax eh, sunu sëriñ sëriñ Moustapha Saleh. Mm-hmm. damay gis. daanaka ay waxam lépp alxuraan lay doon. waaw alxuraan lay doon <laughs> moom. moom daanaka moom alxuraan lay alxuraan lay alxuraan lay doon. lay waxtaane waaw. Eh, dafa mës a ñëw ci benn jataay duggee doon kilifa. Mhm. fekk gaa yëpp toog ci kaw. im mhm. duggee rek ñëpp su bu seen mbaxane daal di ñëw nuyu ko. Mhm. ñëpp daa di wàcc toog ci suuf. am ah, loolu mu ci jàngate rek daane innal muluka isa a xariyatan afsaduha la ñu <laughs> leen waaw maanaam deful boppam buur buur waaw waaye waxiinu alxuraan ci boppam moo ko neex mhm. mu àbb ko ngir jëfandikoo euh, image boobu man man ko man ko caa man ko caa rese mhm. kon mu xam ne maanaam wa jaalu aizzata ahliha adillatan mhm. dañuy fekk euh, mu buur yi bu ñu ci kër dañuy fekk ña fa gënoon a euh, tedd ñu toroxal ñu toroxal leen waaw ñu def ay pauvre waaw kon nga xam ne maanaam euh, des nañ jàngat ci mm. fànn woowu mm. maanaam ci waxtaan wi jot a jàll mm. maanaam nga xam ne tawxiid nga xam ne moom la sëriñ bi njëkk a tàmbalee maanaam jël ko teg ko waay bu am solo. Hmm. danañ gis fi ko yàlla teg ak fi hmm. ko yonent yi. tegoon exactement nga xool tamit ñu gis li nga xam ne mooy cant. Hmm. maanaam nga xam ne sëñ bi nee na moom da cee lottu. ba woote ko. Uh-huh. nga gis fi ko yàlla teg. ak li ci suñu borom soññee. ba xamale ne ñu néew nga ñu néew ñooy sant nga xool ne kon sëriñ bi ñun. waxuma la cant gi ñu koy cantale waaye dañoo war a wëlbati ko waat sant ko. ndax laal li ñu woo ko ñuy sant yàlla. gis nga euh, li nga wax nii. li ma ciy gën a jàngate mooy sëñ Muntaxa bi muy woote màggal gi mhm. daf ne sëriñ bi dañoo woo mhm. ngir ñu santale ko yàlla mhm. waaye li may digal taalibe yi mooy nañ sant sëriñ Tuubaa ba noppi doo ko santale yàlla waaye man li may waxaal waxaale ci biir émission bi mooy ñun taalibe yi nañ sant nañ sant nañ sant sëñ Muntaxa waaw sant ku tedd gi jóge ànd ak sëñ sëñ Muntaxa sant sëñ Tuubaa ànd jóge fa ànd ak sëñ Muntaxa ak sëñ Tuubaa sant sant la ko yàlla sant la ko sant la ko yàlla cant yëpp yi ci yàlla lay lay lay mujj lay xam naa ba ñu ko toppee xese bi yëpp ci ci loolu émission bi ci ci wax ci ci loolu ci loolu la yem dañ koy tënk rek waaw waaye gis nga gis nga cant nit ki li mu war a sant yàlla dafa bari Mm-hmm. waxuma la a yi euh, yi ko doo yàlla defal mm-hmm. te mënu koo ñàkk mm-hmm. ndox mi muy naan te mënu koo ñàkk waaye xoolal guddeeg bëccëg sëñ bi doy waar la yàlla ci alxuraan nee na xulaaletuma in jaala allahu aleykum layla sarmadan ila yawm alqiyamati man ilahun xayrullahi yaatikum bi diyaayin afala tasmaun <laughs> lu wér a ngi daal di waxaat posé waat beneen question xam nga loolu question eh, in jaala allahu aleykum nahaara sarmadan ilaa yawmil qiyaamati mm-hmm. man ilahun xayrullahi yaatikum bi laylin taskunuuna fihi afalaa tubsiruun am solo am na loolu xikma bi ci nekk rek dafa doy waar dafa a sant guddeeg bëccëg ak doy waar ak doy waar suñu gis nga bu yàlla defoon àdduna sépp muy guddi mm-hmm. bëccëg amul mm-hmm. kon àdduna si bi du neex de. du neex du neex. <laughs> bu yàlla defoon àdduna sépp muy bëccëg waaw te guddi amul. day gën a naqari. ci la yàlla posé question bi nag daane imaginer imaginer leen foofu rek bu ngeen xoolee foofu nga xam ñaar yëpp mën leen ko mën leen ko mën leen koo ñàkk ñàkk. isa mm-hmm. mm-hmm. ama am solo la. yàlla dana yàlla bu andi woon guddi lépp lépp lëndëm këris kan muy indi leer leer leer goo xam ci ne dana dana ko leeral. kenn du ko indi déedéet. kenn du ko bu yàlla andi woon bëccëg yëpp kan mu indi guddi gu mën a la nëbal fépp déedéet. kenn kenn mu ne jàngat leen foofu nag xool xéewal gi ci nekk. Mhm. ngeen sante ko ko borom. ngeen sant ma ko afalaa tashkuruun. lu am solo ak noonu. <laughs> moo tax mu ne wa min rahmatihi bokk na ci yërmandeem jaxale lakum layla wa nahaara li taskunu fihi wa li tabtaxu min fadlihi. waaye wa laallakum tashkuruun. Mhm, mhm. wa min rahmatihi jaxale lakum layla wa nahaara li taskunu fihi wa li tabtaxu min fadlihi wa laallakum tashkuruun bokk na ci yërmande yàlla. mu defal leen guddi defal leen bëccëg bu bëccëgee ngeen mën a xëy dem jaayi ngeen dem liggéeyi mhm. ñi ku nekk dem ci euh, defal yëngute nga war a mhm. bu guddi jotee ñëpp dem dallu ji dal dall ji bi lay leen tas ko noonu fii am solo daan ne jàngat leen lool lool rek mhm. ndax fi ne nii sëñ bi sëñ xaadim gis nga nelaw guddi yi mu toog nelaw bëccëg bokkul bokkul <laughs> donte nelaw nelaw waaye nelaw guddi maam la nga ci mën a noppali ko bokkul ak bëccëg nelaw nelaw bëccëg maanaam yenn yenn yenn gént yu xóot yi nga xam te ni maanaam nelaw yu yu xóote ñoo koy yóbbee daanaka guddi nga koy nga koy gént daanaka am na ah. lu dul waxtu wi nga xam ne ci ngay xëy loola daanaka sa sa yaram day sa yaram yi lay jàpp exactement daanaka yaram yu metti nga fay jëlee exactement waaw kon mu mel ni ku ku tedd ki tamit mm-hmm. eh, kon am na lu ko suñu borom subhanahu wa taala defal da mm-hmm. nga xam ne moom mësta jóg ci sant ko déedéet saa su ne ci sant mm, ku borom bi subhanahu wa taala ci la mm-hmm. nekkoon waaw léegi kon Mhm. maanaam su demee boo ne lottu na ci sant ko mhm. man foofu mhm. jàpp naa ne du ak lottu ci sant ko waaye dafa dégg aay yi alxuraan wax ah. ne maanaam ñu néew ñooy sant yàlla te moom mu bëgg ñun ñu bañ a bokk ci ñi néew ñoo nga xam ne duñ sant yàlla ñu bari ñi dul sant yàlla mu ah. bëgg ñu bañ cee bokk bokk ci ñi néew ñi sant yàlla exactement yow dégg nga dégg nga waxee bi gis nga boo xoolee Sëñ Tuubaa euh, buy wax ci ab tomb baat yi muy utiliser ngay jàng waaw mhm. gis nga baatub cant mhm. lu bare bare ba koy wax danaan xaawaltu mhm. xa al mooy jéem jéem waaw jéem xam nga jéem nag lu lu naqaree def loo xam te ni maanaam eh, ah, def ko yomb yombul yombul nga koy def xaawaltu shukrahu la daa turaabi baada la daa ginnaaw bi ma jànkontee euh, jànkonte yi métti mooy jànkonteem euh, baatu wolof la. Mhm. mooy di xeex ak dara li mu daj waaw ginnaaw bi ma dajee li ma daj li ma daj ci sama tukki bi daal. Mhm. jéem naa ko sant moom yàlla. ci sama suuf sa muy euh, Sénégal. waaye la ma lam yeyoo ci cant. Mhm. war a bàyyi ko ci man. lot naa ci lot na ci. lu doy waar a ngi noonu. lu doy waar la kooku moo xam maanaam dayoog cant. Hmm. kooku moo xam dayoog cant. mi ngi noonu. ndax ndax <laughs> euh, suñu borom. Ah, ndax su su su dee tudd yu bari naan hmm. dañ ko cee war di sant. Hmm. moom mu dem ñu teg ko ay nattu nga xam ne tey suñu borom su dee tudd yi ñu ko war a sante nattu yi bokku ca waaye moom yan lay indi xéewal yi mu ñu defal lay indi di sant kon nga gis ne ku tedd ki nattu yi ko borom bi teg. Hmm. ak li muy bari bari. Hmm. yooyu yëpp li muy metti metti. Hmm. dajee sant yàlla dajee sant yàlla gis nga gis nga euh, la la la la ma doon wax léegi. ne Souleymane moom la ñu wax rabbi rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. waaw kay mi ngi noonu waaw. Sëñ da ko da ko tëgg ci aw bayit. dane ko dane ko yow suñu borom awzi'ni shukra. ala namaa ala naamaa yi. aw awzi'ni ya shukra ala naamaai yaa muxlida safaai wa namaai yow yàlla suñu borom yàlla nga ma séddi ab cëru cërub cërub cant cërub ma man ma mën a sant ma mën laa sant ci xéewal yi ma defal am solo nga maam maam moom jàpp jàpp gi mu jàpp ne da cee lottu. moo tax mu ci wut ndimbal. mu ci ndimbal dolli ko ci ak ak ak. ak jàppandal dolli ko ci ak njàppandal. ak njàppandal defal ko ci tawfeex ba mën kaa sant ni mu ko bëgg. exactement exactement mooy. awzi'ni shukran ala naamaai yaa muxlida safaa'i wa namaai mhm. waaye mu waxaat ko beneen yoon ne ko. Euh, bayit wu niroog bi ma waxoon léegi mooy xaawaltu shukrahu la daa turabi baada muqaasaati la dax turabi dane ko xaawaltu shukraka la daa turabi yaa man mahaa bil muntaqa tirabi xaawaltu shukraka la daa turabi yaa man mahaa bil muntaqa tirabi <laughs> yow mi nga xam te ni ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci nga fare sama tukki boobu mooy tumburanke la ma ca la ma daj lépp euh, euh, effacé nga ko euh, coono yi ba mu jeex mm-hmm. sant sant. waaye nag mënumaa jot. dayoo cant gi dayoo cant gi. Mhm. gis nga mu ñaari ñaari noonu. Mhm. am na beneen bayit boo xam ne dinaan fi tijaarati. Mhm. fi gurbati. wa ashkurul akrama inda turbati. rabextu mooy rabextu fi fii tijaarati yi. fii turbati yi wa ashkurul akrama inda astaghfirullah dañ ne rabixtu fii fii tijaarati yi fii xurbati wa a akrama inda turbati yi sama tukki bi ma tukki woon day dafa mel ne damaa jënd na am marchandise marchandise waaw dem di ko jaayee waaye ba ma ko jaayee di am naa ci bénéfice am naa ci bénéfice kon nag wa ashkurul akrama maa ngi sant ki gën a baax mu yàlla su borom ndax baax moom kuy baax rek yàlla la gën a baax ndax moo la mooy baax moo tax mu koy tuddee ak ak al akram mën na ko tuddee al karim mm-hmm. waaye al akram la ko tuddee afdalu tafdil bi la jël afdalu tafdil tafdil mm-hmm. tafdil la jël mm-hmm. wa ashkurul akrama inda turbati muy lu am solo maa ngi sant ki gën a baax maa ngi koy sant ci sama sama loolu di firndeel kon màggal Tuubaa gi gis nga cant googu sëriñ bi da ko dafa sant yàlla nu ne Eh, shukri li rabbin karimin kaana shakkaara mhm. wa artaji minhu fi daarin abkaara mhm. maa ngi sant yàlla mi nga xam te ni yàlla moom ko ko sant sant na boppam ku ko santul sant boppam sant sant sant sant na boppam ndax nga xam ne in tashkuru fa inna Allaha ganiyyun ankum mhm. wala yarda li ibaadi li ibaadihi l-kufra wa in tashkuru yardahu lakum nga xam ne maanaam ku sëriñ bi moom Euh, ak cantam. mën nañ ne ci la dëkkoon. da ci dëkkoon waaw ndax ndax comme ni ñu ko waxee ci tàmbaliment bi ak cant. maam hmm. dees na ko def ci euh, yor sa di sant yàlla. Hmm. dees na ko def tamit ci di jaamu yàlla. reconnaître waaw ak ci xalaat. waaw ak ci xalaat. des na sant ci xol. voilà des na sant ci xalaat. Hmm. des na sant ci bët. ndax am xel di ci xalaat sax maanaam foofu la ak cant gën a gi maanaam di xalaat xéewal yàlla yi. maanaam cant cant gu am sa am solo gi noonu. nga jékki-jékki toog noonu nii rek jël jël jël sa mhm. di xalaat nii di xalaat di la yàlla defal. di xalaat di la yàlla defal. waaw bi nga toog di ko nooy di ko nooy nga xam ne imagine leen siñ takk masque fi ne nii jamono yi nga xam ne dañuy takk masque boo takkee masque siñ bi da ngay. da mel na ko fat non man waxuma la loolu sax waaye tey soo seetloo ñi am na ñoo xam ne dañuy utiliser oxygène boobu nga wax. Mhm. tey oxygène boobu ñi nga xam ne maanaam tey euh, dañ koy utiliser nga xam ne dañ leen koy jaay. Mhm. defal leen ko kii ñu koy noyyi. Mhm. soo seetloo lu seer lañ koy jëndee exactement tey kon kon tey sëñ bi. suñu borom defaral la ko gratis. nga xam ne tey ngelaw li di ñëw ngay noyyi na. ni mu waree. da nga loolu loolu rek daanaka jar nag cant. lu ñu war lu ñu war a cant la gis nga gis nga euh, dama la ci indil sax aayab alquran. Mhm. ndax suñu borom dafa wax ne. wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin mhm. wa li yudiqakum min rahmatihi mhm. wa li tajriya alfulku bi amrihi wa li tabtagu min fadlihi wa laallakum tashkurun tashkurun <laughs> wa min ayatihi bokk na ci kiimaani yàlla yi an yursila riyaha mu yebal ngelaw yi ngelaw li waaw Euh, fen léeg nga nekk dëkk bu mel ne Touba mu jékki-jékki tàng jër. Mhm. garab yi na tekk. Mhm. tàngoor yi da da ngay da ngay mere sa bopp sax da ngay jékki-jékki sax mer te doo doo xam ne lu lu mer la. Mhm. yàlla jékki-jékki rek yebal yebal ngel ngelaw. mu bashiratin ngelaw loo da ngay sa xol bi day féex. da ngay mel ne ku ku ku fattoon. maam <laughs> wala. wala nga mel ni ku xamoon ba ximli ko ba ximli ko. mu bashiratin nga da ngay wax alhamdulilah waay waay ngelaw laa ngi ñëw waay. na ne ngelaw lii di ñëw yëmul ci ngelaw dong waaye ndox ndox ndox ndox nga ci ginnaawam. mu bashiratin waaye nag mu ne wala yudhiqakum min rahmatihi ndax yéen a ngi doon xaw a dee mu mu sal leen yërmandeem. Mm-hmm. yërmandeeg suñu borom. waaw ah, loolu rek jar na cant de. <laughs> loolu rek dafa dafa dafa dafa dafa jar cant. waaw yàlla day jékki da ngay jékki-jékki mel ne koo xam te da ngay da ngay da ngay absenté. mu mm-hmm. delloosu la. waaw mu andi tàngoor wu metti jékki-jékki indi la ngelaw. Mm-hmm. yow ba sam xel dee xalaat. Mhm. da ngay xalaat ne ki indi woon tàngoor yi. Mhm. te mënoon ko fay saxal ba ba ba faaw. Mhm. moo indi ngelaw ngelaw ngelaw yi kon nag war naa koo sant ci ngelaw li mu indi te fayeeku ma ci dara. ndax fi ne nii boo jéemoon a dugg ci euh, foo xam ne nii da nga fay wut sa ngelaw yoo xam ne nii euh, ay climatiseur lay lay lay doon. du baax ci sa wér gi yaram te bu weer wi dee da nga ci xaw a ci xaw a da nga ci xaw da nga dañ la indil facture courant boo xam ne ni moom <laughs> waaw te te te ngelaw la nga xam ne ni yàllaa ko yebal mhm. mm, euh, mu jaarale ko ci garab yeeg euh, wala du ko jaarale ci feneen sax maanaam wér gi yaram nga muy def ci sa yaram mhm. maanaam euh, te fayeekoo la fayeekoo la ci dara mhm. kon nga nga gis ne mm. maanaam ku tedd ki ah. suñ xoolee ci xéewal yooyu muy tudd mm. naan ci lay sant yàlla maanaam suñu jàngatee. Hmm. dañuy gis ne xéwal yi nga xam ne nee na moom lay sant yàlla. Hmm. dañuy gis ne ñun ñi nga xam ne. Hmm. ñun lay woo ngi ñu santale ko. xéewal yooyu daanaka ñun ñun ñoo koy jariñoo. ñoo koy jariñoo <laughs> ndax tedd ku ne xam na soo seetloo. maanaam euh, coono yi mu yooyu yëpp. bi mu ñibbisee. maanaam añ bi mu indi. ñun ñoo ko añoo. ñun ndong ñoo ko ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ko jagoo. waaw moom dafa féetewoo rek. voilà ñun fi ni nii daanaka euh, euh, waaye gis nga gis nga siñ Xaadim liñ ma jublu ci émission bi ak euh, point yi may may insister. Mhm. daa bëgg ñu ñu bàyyi xel ci xéewal yi nga xam ne war nañ ci sant yàlla. Mhm. ak it Sëñ Tuubaa bu neen ñu santale ko yàlla. Mhm. lam lott ba ne ñu santale ko yàlla mooy mooy mooy mooy mooy mooy lan xéewal yooyu maam bu yemoon ci yàlla jëralewu ko ci tukki ba. lam amee ci tukki ba amewu ko ca. maanaam euh, bind gi ko yàlla bind defal ko li mu ko defal lépp rek. ak it maanaam. Euh, tafdil gi mu ko defee xanaa euh, da ko gënale ci nit ñi maam sette ko ci nit ñi. Mm-hmm. may ko lam mu ko may may. ko mm-hmm. xolub maanaam boo xam ci nii maanaam yëmuta kenn. Mm-hmm. may ko xelam yëmut yëmut yëmuta kenn. fa mu teg yàlla kenn tegu. kenn tegu kenn tegu tegu fa. ni ko suñu mënta xaar di faral di waxee euh, sëriñ bi kenn yëbu ko. ñeewul kenn ci boromam ñeewul kenn ci boromam. <laughs> malaaka yëbu ko wax ju doy waar la nag wax ju yéeme la te bu koy wax moom te ab tolluwaayam la si taxaa wax jooju léeg-léeg nit mu nit mu ñi duñ ko analyse sax ndax dañu daan dañu yaakaar ne moom waxee waxi daanukat la waaye waxi ab tolluwaay la ndax bu nee sëñ bi malaaka yëbu ko xam na fa mu teg suñu borom fa fa mu teg su fa mu teg fa mu teg suñu borom ak malaaka ni mu xamee fa suñu borom toll bu ko malaaka yëbul rek kon xam na sëñ Tuubaa la la mu séq ak yàlla ak wàccuwaay bu bam bam bam bam bam bam ci am moom suñu Muntaxa moom di wax dem ba xam ne malaaka yëbu ko keneen yëbu ko it moom kenn kenn kenn kenn kenn du moom gis nga Sëñ Tuubaa dafa sant yàlla ba nga xam te ni cant gi sax dafa dem ba ci biir mm-hmm. da ci da ciy cax mm-hmm. da ciy cax mm-hmm. am na xasida goo xam te nii bi mu koy euh, taarif day cax day cax dane par exemple suñu xaadim mu ne cax naa la mhm. ma ne la achiinu mujamatan wal kaafu war raau mhm. lirraai wal baai wa huwa al baau war raau mhm. dama la jox chiin gu ñu tomb ñetti tomb ci kaw ma jox la kaaf jox la raa ne la tëggal ma ci ab baat ban baat nga ma ci tëggal sukru foofu <laughs> nga ne kon yow de nga cax bi waaye mu ne sukkur woo nga ma nga nga ma nga ma génneel ci Chine gu toog mm-hmm. ak kaaf geeg raag yi. Mm-hmm. maa ngi ko jox raa ak baa. Mm-hmm. <laughs> ko borom bi <laughs> muy raa ak baa boo ko boolee boo ko boolee looy am. borom bi rabbu rabbu. waaw <laughs> rabbu ngay am. mu ne kon ak sukkuru. nag rabbu googu jox sukkuru gi. wa al baa u boo ko boolee looy am muy barru. yàlla moom mooy aji baax ji. gis nga xasida gu neex la goo xam ne dañu buñ ko doon topp fii ba ba. nga xam ne day jël émission bi lépp da koy da koy da koy jël. nga xam ne maanaam ku tedd gi sëriñ bi. Hmm. soo seetlu dafa sant yàlla ci. fenn côté bu ne maanaam sant na ko ci mbind hmm. boo xam ne day hmm. taarif ay xasida comme ni ñu ko xamee woon sante ko ci ay jëf maanaam ba noppi nag wëlbatiku di ko sant ci lak xeetu xeetu mbind moo xam ne miinuñ ko woon mel ni ay araf la jël di ci tëgg di di ko tas ah. jublu ci ay baat <laughs> jublu ci ay baat baat boobu boo ko boo ko boo ko euh, ci euh, mhm. mu jox la maanaam la mu wax bu bu bu bu bu ko waxee bu ko waxee noonu bu ko waxee noonu bu ko waxee bu ko waxee am solo gis nga euh, du ma jeexal mukk te dem ma ci xasiidam googu mu tuddee midaad yi mhm. muy xasiida gu doy war goo xam ci nii ba muy jeexal xasiida la ko jiitu wax na ca bayit woo xam te ni buñ ko wax buñ ko xoolee buñ ko détaillé woon maanaam màggal gi lépp bayit woo mi mi ngi ci biir mën na kaa yóbbu na ko yóbbu mhm. du ma tëb tëb àgg ca te waxuma la ko jiitu mhm. cant ko mu ngi ko tàmbalee ci bayit wam nan wax naan ilallahi hamdi mhm. maaka yaa man lahu thana aqulu wa qasdi shukru fi duuri azmana <laughs> ilaahi bijaahil muntaqa xuttalil muna fali hab shukuran za makuusin maal bur'i tegaat ci bay doom naan laka shukru wa tahmidu yaa xayra malikin ala man lahu sahbun ala kulla saliki indiwaat bay ne laka dahra yaa fardan ala an musharikin shukuri ala man jaadali bil manasiki noonu la sant noonu la ko sant <laughs> la ko la ko sante ba mu tàmm ne ilallaahi hamdi maa ngi yëkkati samay cant jëmale ko ci yàlla ngeen si nga baatu ñaari baat yooyu lay jëmale ko alhamdu wa shukru boo xoolee sax bay ni bari na xasir yoo xam ne ba koy tàmbali foofu la ko daal alhamdu wa shukru ma an lillahi ala nabi wala di abdillahi xeeti maanaam xamtu man yaxsimun min darar min kulli shaytan wa jinni wa bashar mu ne alhamdu xeeti cant cant ñeent yi cant yëpp boo ko boo ko boolee mm-hmm. cant gi Moustapha Lo di sant xaadim mm-hmm. yàllaa ko moom cant gi Moustapha Lo di sant yàlla yàllaa ko moom cant gi yàlla di sant jaamam bi bu bu jëfee lam ko lam ko digal mboolem xeeti cant yëpp rek. ci borom bi lay ci borom bi lay lay lay lay lay lay lay dellu. ñu ngi xàjjale ci loxa bi. maanaam xamdu ak sukru. ak sukru waaw ak xamdu moom yàlla rek lañ ko def. sukru nag mën ngaa nit ki mën laa defal dara ba yàgg nga ne ko nga waaye nag. maanaam jëmm baatu xamdu moom. bu mu ci mën di doon ñent yi muy doon yëpp. day dellu ci yàlla ci yàlla xanaa euh, euh, kon daal alhamdu moo gën a. waaye waaye mu ne moom alhamdu wa shukru da ne mhm. lépp luy xeeti cant daal ak bi bu mën a mën a tëgg rek. ñeel na borom lillaahi am na xasida ma ne hamdi wa shukri liman kulli bihi saara. Mhm. lahu ridan duna suux tin sar saara hamdi wa shukri liman kulli bihi saara macha allah lahu ridan duna suxtin inda sarsaara gis nga dafa neex maanaam <laughs> waxiinu dafa neex léeg-léeg nga dégg jàngkat boo ko jàng am na jàngkat bu ñuy wax seen Cheikh Mbaye ñu ngi koy nuyu ci passage bi mhm. da ko jàng-jàng bu neex xanaa boo xamatoon li xasida gi di firi sax maanaam neex ci yow. Euh, taw bi ñu koy jàngi dafay day day day day day neex lool. Mhm. mu ne xam di sama cant wa sukkur yi ak euh, cant euh, ñaari baat yooyu daal bépp maanaam bu ñu maan. bu ñu mën a làmboo bu ñu mën a làmb rek. kako moom mooy li ma li man kulli bi xisaara. Mhm. yàlla mi nga xam te ni sama yëpp sama lépp moom laa moom laa moom laa ko mujj mujj jox rek. Mhm. waaye nag la xuuri dam duuna soxtin maa ngi koy gërëm te du ma ko mereete bi mukk waaye fan laa koy gërëmee te du ma ko mereete ande sarsara. te Mauritanie. nga xam ne lahu sana lahu yi wa ridwaani bilaa saxatin mus mhm. qaada lii min bani daymaana ansaara gis nga euh, bani daymaan mhm. giir la gu nekk ci Mauritanie goo xam te nii euh, nit ñu baax lañ mhm. mu ne maa ngi tagg yàlla waaye maa ngi koy gërëm ba mu ma wommatalee ci waaye daymaan ñooñu nit ñu baax ñooñu ba mu ma ci euh, tànnalee ay ansaar ay ansaar mooy ñoo xam te nii dañ koy dimbale ci ci ci ci ci diine mooy ay taalibe nga boo xoolee euh, alxuraan ba muy euh, xajale ña almuhaajiroon wala ansaar la waxoon. Mhm. almuhaajiroon mooy ñu àndoon ak yonent bi jóge Màkk gàddaay dem Madina. Mhm. al mooy ñan fa fekkoon ñan fekkoon Madina. mu ñu tertu leen. Mhm. solo. mooy mooy lu <laughs> am bi cant googu rek maanaam. nga xam ne moom jóge gi ñu ko jëlee Sénégal yóbbu ko Mauritanie. ca ca Sarsara maanaam fekk gi mu fa fekk ñoo xam ne. ñu ko ñu ko ñu ñu ñu muy mën a waxtaanal yenn saa yi ci diine rek. loolu rek ak da cee sant borom bi subhaanahu wa taala ak it ak it maanaam nit bu baax xanaa waa lislaam ñam mm. fekk. waaw nit ñu gëm yàlla. Mm-hmm. sëñ bi sëñ Tuubaa bu gisee nit ku gëm yàlla da da koy day xol sedd. maanaam dafa bëgg yàlla ba nga xam te ni bu mm-hmm. nekkee ci euh, nit ñu bëgg yàlla. Mm-hmm. Euh, koy da koy da koy neex. maam kooku da koy neex kooku mooy ci taw tawxit gi njëkke woon moo ko dëggal rek xam nga mm. suñ borom suñ njëkkee sa xol mu mm. fees ko dell rek mm. lépp loo gis da nga ciy gis da nga ciy gis da nga ciy da nga ciy gis borom bu nekkee ndax waxoon na ko li tax moom moom yàllaa ko neex mm-hmm. Mm-hmm. yàlla yàlla ci boppam moo neex si moo neex moo neex Sëñ Tuubaa bu nekkee ci lu neex yàlla da da da ci kontaan bu gisee lu naqari yàlla da ci da ci da ci kontaan mm-hmm. bu gisee koy defal yàlla lu neex yàlla da da da da da koy neex gis nga da koy firndeel am na bay du ma dégg bu mu wax mu naan akramani akramani llaahu bi xubbi fiihi wal buxdi fiihi wa huwa astafihi yàlla teral na ma teraa may bëgge ci moom di bañee ci moom bañee ci moom lu may bëgg da koy te yàlla tax dama dama koy bëgg te yàlla tax bu may bëgg dara it dama koy bëgg ngir la ci la ci la ci dara yàlla nekk mhm. bu may bañ dara yi dama koy bañ ngir ne dara yàlla nekku ca mhm. te nekk ci lu dara yàlla ni ko loolu perte la ko la ko la ko gisee. nga xam ne loolu dara ëpp ko jariñ. ci yàlla lay bëggee ci yàlla lay xam ne maanaam sooy lu yàlla def rek. neex na ko maanaam sooy sooy sooy sopp nit da koy sopp te yàlla tax. te yàlla tax maanaam soo koy soo koy contre tamit di ko di ko noonoo. da koy noonoo. te yàlla tax gis nga li koy firndeel li ngay wax nii. bëgg bëgg lu sëñ Tuubaa bëgg lu yàlla bëgg rek sëñ neex na neex na sëñ Tuubaa na sëñ lu yàlla bëgg rek mhm. neex na sëñ tubaa waaye lu neex sëñ tubaa yi neex na yàlla mhm. ndax du nekk ci lu neexul yàlla waxin la mhm. waaw daf ne daf ne muraadu qalbiya muraadullaahi maa mahabbati rasulillahi sama xol bi li mu bëgg mooy la yàlla bëgg rek ak bëgg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ko bëgg ma bëgg ma bëgg lee ko ko mhm. kon lu yàlla bëgg rek bëgg naa ko gis nga suñ xalim nga may metuuti ñu dellu si waat ci li ma doon wax léegi ci milaadi googu ilallaahi hamdi maa ya man lahu sana mhm. aqulu wa qasdi shukru mhm. ne li ma jubloo maa ngi wax waaye li ma jubloo li ma jubloo li ma jublu ci li may wax day maanaam sant sant rek laa ci jublu aqulu wa qasdi shukru fi duuri asmana daani ilaahi bi jaahil muntaqa quttalil muna yow yow yàlla ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal nga may defal nga nga may xéwal maa ngi may xéwal waaye nag fali hab shukuran may may ma ma sant la sant la ni nga ma mayee xéwal yi nga xam ne moom leer ma nañu yaa ma ko may dama taw fee xalima man manu ma man laa sant ci ci ci may xéwal yooyu nga ma may xéwal yow yi yi nga ma maam jëlul dara rek moom la ko boppam gisul dara ci boppam gisul dara boppam ci boppam ci dara lépp da koy delluwaat ci yàlla maanaam ak cant foofu mooy mooy loolu maanaam lépp lu la yàlla may may rek mhm. nga delloo lépp ci yàlla ci yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla mu jógee nga delloo ko yëpp nag xam ne ko maam bu du doon yow it maanaam euh, sama dara yi man ma nekku ci fa lii hab shukuran waaye nag daa ma koo seen naa sax ci di la sant mhm. may ma di la sant waaye sax ci rek bu ma la sant benn rek fàtte fàtte xëy na ma defaloon déedéet mhm. fa li xab sukuran daa ma ko si ndax léeg moom may may goo xam te nii mhm. da yeneen may mhm. euh, bala ma laa sant cant ga yelloo ca may ga ko jiite woon sax nga indilaat may yeneen may kon nag may ma sax ci del sant rek xool ma loolu rek ne ko laka sukru wa tahmidu mhm. maanaam baatub sukru ak baatub xamdu népp nañ ko mën a tëggi rek la mu làmboo ci maanaa maa ngi la koy maa ngi la koy jox yaa xayra malikin ala man lahu sahbun alaw kulla saliki maa ngi lay sant ci yont bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cër bi yi nga ma ci sedd ci moom maa ngi la ciy sant tuddul tuddul tur wa dëgg-dëgg waaye da ko wax melokaan woo xam ci nii ku dégg melokaan wax xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ndax dana ko wax alaa man mhm. lahu sahbun mhm. ci jëmm ja nga xam ci nii am na saxaaba yoo xam ci nii ñoo féete kaw Euh, képp kuy sowuyee ci ci ci yoon ci yoonu yàlla rek. lu mel noonu la tëggee xasida boobu di Mawaahibu da nga koy jàng ba mu jeex doo ci gis turam. waaye da ngay xam ne tagg yu bari ci ci moom la jëm. noonu la ñu waaw Mawaahibu Mawaahibu googu nga wax sax dama ci profité waale. Mhm. Euh, boo xoolee ci njëlbeenu bayit yi bokk na ci la mu ci wax lahu shukuri bilaa bilaa kufuri waaw. lahu shukuri bilaa kufuri. am solo na yàlla shukuri sama cant. bilaa ko furi ci dul ma koy weddi nag maanaam nga xam ne ñaari baat yooyu day mel ne dañoo xaw dañoo xaw a ashukru gis nga ashukru fu mu nekk mhm. kufur jóge na fa jóge fa al kufur fu mu nekk rek shukru nekk nekk ko mënuñu bokk benn place mhm. <laughs> <laughs> lu am solo ngi noonu am solo nga am nga xam ne ki sax ci ak moom <laughs> ah. saa ne moom ah. dañ moom imaan bu dëgër ci lay nekk doog a mën a maanaam la ci nekk ci jàmm yàlla yàlla rek yàlla yàlla rek yàlla yàlla rek ko xam mhm. ne ko laka shukru wa taxmidu yaa xayra malikin ala man lahu sahbun ala kulla saliki ne ko laka yaa fardan ala al mushariki shukuri yi yow yàlla mi nga xam te nii kenn nga te féete nga kaw ñu di la bokkaale ndax mënoo doon ñaar yaa féete kaw ñu de la bokkaale mooy maanaam amoo ku mel amoo dendandoo amoo ku mel ku mel ku mën la mën ku la mën a jaamu gis nga loolu peut être dellu si waat ci tawxiid tawxiid bi ni ko Sëñ Tuubaa mhm. ak sukkur ni ko ni mu koo xam te nii yaa ngi euh, limaale sa bopp ci njabootu Sëñ Tuubaa mhm. euh, te ne almutaalliquuna bihi bihi nga mhm. mën cee boole sa bopp war nga war nga ci bàyyi xel ci dara di ko jàng moom fa mu nekkoon ak it ñu jéem ko jéem ko jéem ko caa ko caa roy fa mu tegoon yàlla ñu jéem suñ kémtalaay kattan jéem fàttali yàlla fa mu tegoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jéem suñu kéem tolluwaay kattan di mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. fa mu tegoon euh, jaamu yàlla yi mhm. jaamu yàlla yi laax li yàlla digle ñu war ko euh, ñu war koo jëfee mhm. kenn mënta àgg fa mu ca àggoon waaw lu wér la waaye nag ñu bañ ne mënuñu fa àgg rek ba duñ ba duñ ba duñ ba duñ jéem sëñ Saaliwu Mbàkke daana wax euh, yàlla na ko suñu ñu gën a ñaar yi fi nekk alxuraan ne yaa ayyuhal lazina aamanu ittaqullaaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum daal di ne waaye nag dafa waxaat ne fattaqullaha mastata'tum hmm. la fa fa fa laa nekkoon waaw waaye ñun nag bu ñu mënta àgg ci xaqatu xaati yi woowu ñu jël a fattaqullaha mastata'tum maam liñ liñ man bu ñu ci bàyyi dara waaw dem ci suñ képp lay kattan képp lay kattan waaw suñ tubaab ne mu fonk woon julli hmm. nga ko fonkoon waaye nga sa képp rek hmm. bañ a bàyyi wenn waxtu muy muy jàll donte àq ji julli nga yeyow mënu ko ko mënu ko ko jox nam fonk koor na euh, euh, mu mhm. mhm. fonk woon joxe. teralaate. na mu fonk fonk woon doomu aadama ngir euh, ni yàlla teral doomu terale doomu aadama. Mhm. ni mu daan bëggee ci kuy jëfe ndigal yàlla yi. ak ni mu daan mere ci bu ma gis ku ku ku ku ku dul jëfe ndigal. ku sàggane ndigal yàlla yi ku sàgg ku sàggane ndigal yàlla yi. loolu ñu war ko ci roy. kon nga xam ne maanaam sëriñ bi. Mm. maanaam fi ñu ko war a roy daanaka dafa bari lool. bari lool ndax soo seetloo maanaam cant léegi. jàpp naa ne eh, warta yem ci toog toog nii rek eh. maanaam xaar boo 18 safar ñëw hmm. ñu defar ay bernde ne dañ koy santale jàpp naa ne santale gi ñu koy santale yàlla hmm. eh, li ci war a jiitu mooy hmm. xool moom fa mu tegoon tànkam ñu jéem faa teg suñu tànk dañ ko fa doon tegam am ko waaye ñu jéem a roy dañ ko war a représenté dañ ko ca a représenté maanaam képp koy wootee Sëriñ Tuubaa rek da ngaa war a représenté représenté Sëriñ fu mu fonk woon nu mu kenn bañ a jaare ci yow gis dara la ñuy dooyee deelee diine. Ah, mu jaare ci yow te ñu naan euh, ci waa ci waa Sëñ Tuubaa nga bokk nga nga bokk. Mm-hmm. xam nga li muy naan man talabal wusula lil jalil. fal yaxtasim bi sunnati rasul bi an yu laazima. mutiyaan laa yamiil fi zahirin wa baatin ani sabil xam nga loolu dafa bayit boobu rek daanaka soo ci tënkoo. <laughs> Ah. lépp day daal di mën a feeñ. tubarkalla gis nga suñu xaadim ñaari bayit yi nga wax fi mu nii. Mm-hmm. gis nga mooy lépp Sëñ Tuubaa li ñu war a wax lépp wax na ko mm-hmm. li ñu war a mel lépp euh, jàngale na ko. Mhm. li ci des nag mooy fi ne nii maanaam ñu xool euh, kenn ku nekk jàngat sa melokaan euh, sa melokaan bokk bopp. Mhm. fa nga ko ca war a féete nga fé nga fé nga féete nga féete nga féete ko ca. Mhm. nga féete ko ca donte it du jàng da nga ko da nga ko féete ndax boo ko defee léegi sa bopp nga ko def nga ko def. ni alxuraan waxoon ne in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda wala yarda li ibadihi al kufra mhm. bu ngeen weddee seen bopp ngeen ngeen ko def ngeen ko def waaye nag yàlla da ngeen wedd neexu neexu ko mhm. waaye wa in tashkuru yardahu lakum bu ngeen mhm. ngeen ko santee nag maanaam lu ko neex def ngeen lu ko neex waaye nag waaye rek wala taziru waziratun wisra ukhra lañ lañ ñu daanoo gis nga doo jëf lu baax mukk ñu dima ko bindal waaw nga jëf lu bon mukk ñu dima ko bindal kon kon foo boo boo jëfee lu bon euh, yàlla nañ suñu borom musal. amiin euh, safaani ku ko ku ko jëfee noonu moom la ñu ko ndax wa kullu wa kullu insaanin mhm. alzamnahu taa'irahu fi unuqihi ku ci nekk rek ak jëfam lañ koy lañ koy lañ koy topp lañ koy bindal. lañ koy bindal waaw ah, lañ koy lañ koy bindal kon nag fi nii war ngaa rus malaaka yi. malaaka yi nekk ci sa mbagg yi. Mhm. di bind si sa sa sa jëf yi. ba nga bari boo naratee jëf lu bon. Mhm. nga rus malaaka mi nga xam te <laughs> moo nekk ci wetu càmmoñ gi mm-hmm. te lépp loo jëf ci ruban mu mu bind ko mm-hmm. boo nar a jëf lu baax nga ruus malaaka mi nekk ci wetu ndeyjoor gi te loo jëf ci lu baax mu mu bind ko ne ko alquran ne ko suñu tubaab waxe woon mm-hmm. wa yaktubu raqibu wala atidu jumlatama yaati bihi labidu nga xam ne lu am loolu day dellusiwaat sax ci ci taarix ndax ku tedd gi soo seetloo ci taarixam. Hmm. Euh, am na fu ñu ko dugaloon néeg boo xam ne soldaar yi dañ faa nekk di tux cigarette ak yëpp ñu dugal ko fa. ñu laaj ko ndax da cee am lu ko metti hmm. mu xamal leen déedéet ndax maanaam gannaaw ñaar ñi nekk sama wet moom. ñu koy ñu ngi koy muñ rek man man danaa ko muñ. jërëjëf si xarit kon dafa am tamit. jërëjëf ci fàttali googu nga fàttali euh, histoire boobu nga xam ne tubaab moom. maanaam ñooñu la defoon lool ñooñu la defoon ay naw ay naw ay nawle waaw malaaka yooyu la suñu tubaab dafa malaaka yóbbu ko mm-hmm. maanaam ñooñu la defoon ay naw ñooñu la defoon ay na ay nawle loolu da cee am solo lool ñu xam tolluwaay ba mu tolloon fi mu tegoon borom bi ak ni mu ko doon sante mm. ngir ñu ko ciy jéem a roy mi ngi noonu waaw eh, li ma doon wax léegi ci eh, midaad yi mm-hmm. laka shukru wa tahmidu yaa xayra malikin ala man lahu sahbun ala wa kulli sarki ne ko laka dahri afatan ala an mushariki shukuri ala man jaadili ko waaye la ma ci ëpp solo li ma doon wax ne mooy mooy mooy bayitu eh, màggal gi mm-hmm. te fu ma toog di di ko di ko wax da su ma sañu ñëpp di ci bàyyi xel mm-hmm. muy hibaatuka li ayat shukuriya fil mm-hmm. kunhi mm-hmm. lakal hamdu yaa fardan taalayta an shibhi gis nga suñu tubaab foofu dafa xam ne que yow yàlla xibaatu ko yow say may yow yàlla eh. xibaatu ko lii say may may yi ma may ah yet sukkur ya lottal nañ sama cant samay cant bu fekkoon nag may may mm-hmm. loo ma may ma sant ja cant ga ca war. Mm-hmm. nga dog mm-hmm. ma may. may may nga ma maye maye maye maye maye maye ba jiit jiitu ma. fi mu ne ma mënatu ma ma mënatu ma laa dab mënatu ma laa dab ndax ma am li nga may moom bari na bari goo xam ne wax dëgg yàlla lam méngoo. Mm-hmm. ci cant ci may yooyu. mun a lott naa ci daal. ah yet sukkur loolu daal ne ko li ma li ma mën daal mooy. te ba mu wax nag en yet si courrier la mu ca delloo dañ ko fil kun yi fil kun yi maanaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg daal si dëgg dëgg daal maanaam léeg nga dégg wolof yi sax di ko wax ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg daal dëgg dëgg dëgg dëgg daal maanaam cant ga ma la war a cant daal lot naaj lot naaj li ma lay wax daal mooy lakal xamdu boo demee boo xam ne waaye jërëjëf rek maanaam jërëjëf moom baat bu gàtt la waaye ku jëful du ko am maanaam ah, loolu bayit boobu day day représenté màggal gi ah. bu baax a baax a baax. nga xam ne kon moom maanaam loolu moom mi ngi xam ne kon fu mu jàngat na li ko yàlla may yëpp jàngat na ko. Mhm. xéewal yi yàlla yëpp xool xool xool xool na ko. Mhm. xéewal gu nekk xam na la ca euh, la mu yellool ci cant. Mhm. waaye lot na ci. Euh, ci sant ko sant sant daal. moo tax nga xam ne comme ci loolu rek la sàkku ndimbal. kaay leen sant li ma ko. mooy màggal gi sin bi mooy màggal gi kaay leen sant li ma yàlla rek leen sant li ma ko mm-hmm. ci jàngal jàngal ko alxu jàngal ma ko alxu waxam ju tedd ji mooy alxuraan mm-hmm. nga xam ne ci dafay nekk ci kaw suuf bu ngeen ko jàngee dana fi dund bu ngeen ko jàngute maanaam euh, dana fi jàng ko mm-hmm. ngir jàng gi man a man leen a setal man leen a laabal barkat alxuraan bi wàcc ci àdduna bi euh, <laughs> ak lu baree bare loo xam ne suñu maam jàng jàng jàng ga da ko da ko da ko jur jiglu leen ndax jéggalu jéggalu yàlla it ci ci màggal bokk di leen julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ndax julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ci ci ci ci cant ci cant bokk ci màggal am na ndeysaan salaatu gu gu neex gu xam te ni ngi ci biir euh, xasidaam googu mu mën a tudd léegi wasilatu ruboox daf ne allahuma salli wa sallim wa barika alayhi wa ala alihi wa sahbihi wajaal safari kal xajji wal umrati wal jihaadi barakatan wa sawaban bi jaahihi al azim yow yàlla yàlla nga dolli xéwal yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te dolli ko mucc ak waa këram ak i waaye maa ngi lay ñaan de yow yàlla sama tukki bii ma tukki woon nekkoon ci loxoy noon yi yàlla na ko def mu doon barke boo xam ci nii lañ tuyaaba jan mën a amee ci xaj ak tuyaaba jan mën a amee ci omra ak tuyaaba jën mën a amee ci jihaad ci yoon ci ci ci yoonu yàlla mm-hmm. yàlla nag ma ko defal ñu ma mën ko amee ci sama sama sama sama bi nga xam ne maanaam ñaan googu foofu salaatu ala nabi dafay dugg ak ñaan dafay dugg ma loolu ñuy wax euh, dàqum ginaar euh, waxaale say soxla <laughs> waxee wala wala fi di waxee rek nga xam ne maanaam doxa boobu am solo gi am solo mooy mm. euh, ku tedd ki mm. maanaam ñaanam yi mm. maanaam ñaanam yi yëpp la suñu borom nangu. nga xam ne maanaam ñaan gi muy ñaan maanaam mm-hmm. safar tukkeem boobu. Mm-hmm. maanaam taxaw taxawaayu aj mm-hmm. xam nga loolu lool dafa kawe. dafa kawe dafa kawe dafa lu am solo la nga xam ne moom euh, jaamu yàlla bu gën a kawe moom la jël ñaan tukki gi taxaw taxawaay yooyu. <laughs> Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa fu bëtam di xool moo moo am xelam di nekk moo moo moo sori. gis nga boo gisee am mbindam. saa yu wax dara daan ne ilal jinaani rek maanaam ilal jinaani mm-hmm. rek ba àjjana rek lay wax lu muy wax daan ba àjj ba àjjana rek sëñ Abdoulaye doon wax ne ne sëñ Tuubaa daal jaaxal na ma mm-hmm. àjjana ji àjjana moom euh, moom rek saa yu ko neexee dugg rek ah <laughs> ilaa ilaa doxalee yi jëna taxu rek ilaa doxalee yi jëna taxu ilal jinaani rek lay wax mm-hmm. ilaa doxalee yi euh, gën a dolli guddal fanam ni mu koy faral di waxee maam suñu taxawam di noonu foofu la nekk maam ba àjjana rek nekk ci ba àjjana nekk nekk leen ci rek nekk leen ci ba àjjana rek mhm. ba na maam nga xam ne kon da nga toll ci jaamu yàlla foo xam ci ni yow sa bët mhm. maam rek lay gis mhm. àjjana ngay dund ngay ngay ngay dund am ne foofu ñun tamit am nañ fa responsabilité bu am solo. bu am solo ndax ndax euh, maanaam ku tedd gi sëriñ bi fi mu fi mu fi mu tegoon bëtam. ba yàlla may ko ci li mu ko may lépp. ku ne xam na maanaam xéewal yooyu nga xam ne moom lay sant yàlla yooyu yëpp. Mm. ji ci ëpp wax naa ko sànq maanaam ci ñun ci ñun la ñëw. Mm. waaye kon ñun. Mm-hmm. maanaam fa mu tegoon bëtam. Mm-hmm. ñun tamit war nañoo xool sëñ bi ñu teg ko bët. mu ngi noonu ngir ngir suñu donte ko xam nañ ne mënuñoo àgg fa mu àgg. loolu kenn waranteetu ko. waaye nañ ñu ne ca yoon wa rek. nekk ca yoon wa waaw ñu ne ca yoon wa rek. nekk ca yoon mi ngi noonu gis nga li ma leen wax léegi salaatu googu may wax léegi am na geneen salaatu goo xam ne nii moo ko feelu mm-hmm. Euh, sëriñ bi muy julli gu ne muy euh, salaatu gu am solo tamit dana allahumma inni asaluka mhm. an tusalli ala sayyidina muhammadin mhm. wa alihi wa sahbihi wa tusallima salatan wa salaaman mhm. taxfiru bihima lii wa tahabu bihima shukran laa yakunu li ahadin min jinsi baadi wa tarzuqni bihima alhijrata an kulli ma nahaytu an kulli ma nahayta anhu mutlaqan abadan fi sirri wala alaaniyati wa mufaaraqata aadaayika fi dunya wal axirati wa murafaqata ahibaayika fi dunya wal axirati gis nga ñaan ko ama am solo ngi noonu sëñ bi kawe sax sëñ bi dafa ñaan foofu dana yow yàlla maa ngi lay ñaan li ma lay ñaan mooy nga salaatu wa salaam nga xam ne yaa ñu ko digal ñu war ko def ci yonent bi mhm. maa ngi lay ñaan nga nga def nga defal ma ko mhm. ma ma nangul nangul yàlla nga dolli xéewal te sëlmal ci euh, yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ginnaaw boo de boo ma nangulee euh, salaatu wa salaam googu ba noppi ci yonent bi maa ngi lay ñaan lii salaatu wa salaam goo xam ne da nga da nga sukkandikoo ci barkeb salaatu gi ak salaam gi. Mhm. defal ma njëgal. Mhm. nga nga may ma ci nga may ma ci ak ak njëgal. gis nga mhm. fa mu tegoon ak njëgal njëgalu suñu suñu borom. suñu borom moom tamit. waaye mu ne ñaanu ma ne ci njëgal kese dama koo njëkkalim rek. waaye yu bare bare laay laay ñaan ndax xam naa ne euh, salaatu wa salaam ni nga ko ni nga ko fonkee. Mm-hmm. ku ko jiital. lu mu ca teg euh, bu la ko ñaanee nga nga nga may ko. Mm-hmm. lu ma ciy jiital di ko di ko ñaan mooy njëggalu sa sa njëggal yàlla nga may sa njëggal. Mm-hmm. waaye nag maa ngi lay ñaan nga may ma ma sant la sant goo xam ji nii ci sama xeet. ba àdduna tukki. cant goo xam ji nii fa muy àgg ci yow. keneen du la ko sant. muy cant goo xam ji ni daal dayoo ba muy am. maanaam keneen dootul am lu ñu toll cant gu ñu toll daal kenn dootul am cant gu ñu toll mm-hmm. muy muy firndeel li ñu doon wax léegi ci ci ci ci màggal gi mm-hmm. shukran laa yakun li ahadin min jinsi baax yi waaye maa ngi lay ñaanale nga wërsëgale ma ma gàddaay ma imi ma immigré mm-hmm. xam nga immigration immigration mooy mooy jóge ci barab dem ci dem ci dem ci barab waaye man li ma la ñaan gàddaay googu mooy gàddaay lépp loo tere ma gàddaay ko est-ce que ma gàddaay lépp loo tere ma ma gàddaay ko lépp loo tere rek. ma sori ko sori ko sori koo xam te ni du ko jege mukk waaye ba tey bokk na ci li ma lay ñaan. ma gàddaay lépp loo tere ci zahir ak ci waaye bokk na ci li may ñaanaale it ma taqalikoog say noon. mu mu aadaayika waaye nag bu ma tàqale ko say noonu rek waaye naa taqoo say sa sa sa ñi la ñi la bëgge mhm, say soppe say soppe mhm. al mufaaraqa al murafaqa dañoo dañoo doon ñaari baat yu yu yu yu niroo mhm. waaye dañoo bokkul dañoo bokkul waaw al mufaaraqa mooy tàqali ko al murafaqa mooy an an an an àndaaleeg waaye maa ngi lay ñaan tàqali ko lépp la euh, ko sa noonu yi nga xam ne am dañ euh, dañ laa bañ nga xam ne nangu luñ la waaye taqoo taqoo sa sa sa soppe yi mooy ñi nga xam ne nii nangul la ne ne yow yaay yàlla di di di jëfee lu ko lu koy lu koy lu koy firndeel mm-hmm. muy ñaan gu am am solo goo xam ne nii fuñ toll war nañ war nañ war nañ di ko di ko di ko bàyyi xel kon nga xam ne maanaam am solo loolu maanaam salaat ala nabi gi rek mm. da nga ciy gisee euh, am solo njariñ gi xasida yi am solo mi ngi doon ndax soo xoolee inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi mm-hmm. da ngay gis ne xasida yi maanaam ay sala li ci nekk ci ay salaatu ala nabi kenn xamut lu ni toll kenn xamul lu ni toll macha allah taala bañ na ko ba dafa jël am ay xasida yoo xam ne spécial salaatu ala nabi gis nga kon loolu li ci nekk ci jaamu yàlla kenn mënu koo lim waaw gis nga kuy kuy boo jiitalee jàng alxuraan mhm. da nga cee war a teg jàng xasida mhm. gars xasida yi ñu ngi leen ziyaar baax a baax te loolu da suñu taxaw doon waxaale ñu ngi koy yeesal fasaale leen ñu di leen di leen fasaale gars yi mhm. ne bu ñu jeexalee émission bi incha allah émission suñu suñu suñu ayoo ngi ñëw ak ganam ganam yu tedd yi ñu war a àndal waaye ñu ngi sàkk ci ñoom ñu fasaale ñu waaw fasaale ñu bu leen da ngeen xam day li ngeen di jàng ku jàng alxuraan da ngay xam ne wax yàlla ngay jàng jox ko wàccuwaay ba fas ca la nga ci bëgg fasaale fasaaleel ca ndax loo ci fas fas rek mu faso waaye ku jàng xasida yi suñu tubaay yi maanaam dee ci fasaaleel gaa yi dee ci fasaaleel ñi bon ñu baax dee ci fasaaleel ñi weddi yàlla ñu nangul ñu ñu ñu nangul yàlla ñaan gu nangul yàlla deel fasaaleel deel fasaaleel suñ mun taxaa mu yàgg fi lool te wér deel fasaaleel it liggéey suñu tubaab bi bu mu laal mukk suuf bu mu jegee suuf sax ne ko suñu mun taxaa doon doon gis nga euh, boo demee ci xasidam gi ñuy wax euh, nuuru daare ni euh, ca njeexantal la ah. da fa fekk muy wax ay lëxoo sukkuré yu bare bari lëxoo sukkuré ba mu jeexee lëxoo sukkuré mm-hmm. chakartu ko la la la la la ca teg xam ne moom li noonu gis nga am na foo xam ci ne lëxoo sukkuré alal ayaam yi yow yàlla maa ngi ndax jëf yu baax yi may yi may yi may jëf mm-hmm. fokk bis bi bis bis bi ñëw ma doo ma doog ko tamale jëf mm-hmm. bu fekkoon da ngaa def àdduna sépp muy wenn bés bu ma ci euh, jëf jooja <laughs> kon euh, bis bu ñëw rek maa ngi lay maa ngi lay sant maa ngi lay sant ci bis yëpp yow yàlla mhm. waaye yóbbu ci sant ko ci bis dane ko lahu shukru ala kulli wax na maa ngi lay sant ci at yëpp it at yëpp tamit sant na ko ci euh, ne ko lahu shukru bilanti xay maa ngi lay sant sant koo xam ne amul amul fu amul fu amul fu mu lahu shukuru bi laa ko farani maa ngi lay sant goo sant goo xam te weddi du ca du ca topp mukk mhm. lahu shukuru yaa alal binaay maa ngi lay sant ci euh, tabax bii nga xam te ni mhm. may nga ma ko ci ci euh, ci sama dëkk ba mhm. lahu shukuru yaa alal xalaale maa ngi lay sant it ci lu leew li nga ma may ba ma mën koo jëfandikoo ndax mën nga ma euh, déta ay détails li muy indi yoo xamante ne si bii boo xoolee la ci nekk ci lañ ko war a sant am am njàngale la ci ci ci nit gi ki wala yàlla taw feexale ba may la loo xam te ni lu a dañ ko ca war a sant bu baax a baax sax baax a baax te te a may nga sax ci ndigal mhm. suñ euh, ki buy buy buy buy jëfandikoo lu leew ay ciiram day sawar ci ci lu baax ci lu baax buy jëfandikoo ab safaanit mhm. ay ciram day la ci def def def lu baax mhm. am na euh, ndeysaan bayit Sëriñ Tuubaa yu neex yu mu wax ci téeréem boobu di Masaalikul Jinaan mhm. am na foo xam ne naan fa in takun aakila rizqallaahi wa mhm. anta fi kulli zamanin laahi walam tatub li talabil xufraani mujtahidan fa daaxilu niraani <laughs> euh, yàlla bu la wërsëgalee euh, ngay lekk ci wërsëgu yàlla simbit dellal njukkal yàlla nag sëñ bi sante ko sante sante ko xamal ne ko li may li may li may jëfandikoo yaa ko waaye yaa ma ko wërsëgale waaye yàlla wërsëgale ba noppi sëñ bi suñu foo nekk foo nekk rek ci lu naqari lu ko lu ko naqari nga nga nga nga nekk hmm. imagine boo ko boo ko def sa moromu sa moromu julli rek sa sa moromu aadama nga xam ne euh, sëñ bi maanaam ci ak cantam hmm. soo seetloo dafa bàyyiwul dara dara dara bawu ko maanaam lépp lu ñu yaakaar ne sant ci yàlla rek maanaam sant na ko ci maanaam soo seetloo jamonoy jamonoy jafe-jafe yi sax ci la mm. gën a sante borom bi ne jamonoy xéewal yi jamonoy xéewal yi li li koy gën a findeel mooy màggal gi màggal gi soo seetloo bi ñu demee bu xéewal yëpp tegoo mm. teggeeku mm. maanaam mu jël bés bi nga xam ne ci la génn ci la génne waaw xarajtu yawma sabti voilà ci la thamina achar mm-hmm. li xidmatil muxtaari fii chahri safar wax na ko euh, ci ci euh, ci mbindam waaye am na yoo xam ne ni wax nañ ne xarajtu a sabti rabia achar ndax euh, jazaa'u shakur bi mhm. sëñ Moussa Moussa Ka euh, bind euh, rabia achar la la la bind waaye lu ci mën na am maam maanaam la ci gën a lëng mooy samina achar gi nga xam ne moom ci la ñuy màggal màggal Tuubaa gi mhm. te sëñ Tuubaa Euh, ma nga xam te ni shahid ayaan la euh, mm-hmm. fekk woon naa ba sëñ bi di tàggoo euh, ba ba muy nett li dane bis bis fukk fan juróom-ñett la li ci am solo mooy rabia asar boobu nga wax moo ñëw sax ci mbindum sëriñ bi moo ñëw ci mbindum sëriñ bi waaye nag loolu sëkkoor bi mu bindal boppam moom da cee nekk mm-hmm. rabia asar rabia asar waaye saamina asar bi mm-hmm. Euh, soo seetloo ku mel ni sëñ Mouhamadou Lamine Diop ni mu ko tënke mooy rabion ansar bi mm. mooy bés ba nga xam ne ci la noppi woon ngir génn noppi woon ngir génn exactement nga xam ne yéene ga mu jëloon waaw ngir génn mooy bés boobu mooy bés boobu waaw waaye bés bële moo moo jëm moo ko jëmal waaw kay bés bee rek la génn <laughs> kon jërëjëf ci leeral yooyu euh, nga indi sëñ bi sëñ Xaadim mm-hmm. di doole amati mbégte lool ci bokk yow euh, émission bi ndax it li may wax ak li ñuy waxtaanee mm-hmm. ni nga koy déggee mm-hmm. maanaam day day day jëmmal bu baax wax wax waxtaan wi Euh, te loolu mënut a mënut a mënut a ñàkk. Mhm. waaw ndax it euh, léeg-léeg nga delloo si ma ci loo xam te ni. maanaam bu ma ko weesoo woon rek. maanaam te waxuma ko euh, day day day am loo xam te ni day day des ci bi. Ah. te nit a ngi toog léeg di ñu seetaan loo xam te ni. Mhm. xëy na amoon na yéene wax ñu ko. Mhm. lu suñ xel lu suñ xel dajul. te yow mii day mel day mel yàlla yaa leen yaa leen fi représenté. kon ñu ngi sant bu baax a baax ci émission ci bokk yow jotaay bi. waaye li ma doon wax rek. ci la xoo sukkur yeegoogu. sant na ko ci euh, lu lew li mm-hmm. lahu shukri ala man sajadu wax na ko ci mm-hmm. maa ngi lay sant ci ci ñi lay sujjóotal lahu shukri ala man rakao mm-hmm. lahu shukri ala al awtani lahu shukri ala al mamarri lahu shukri ala al xuyuri lahu shukri ala al kitaba lahu shukri ala al xurufi lahu shukuri yaa ah, laka shukuri cheikh la laka shukuri maa ngi jégalu ci yàq yàq yi laka laka laka lakay lay mhm. donte laka yi ak lahu yi waaye laka gi day mel ne da koo jàkkaarloo ak moom waaw mu xaatab la mu xaatab la maam bu nee lahu bu nee lahu day mel ne suñu borom dafa dafa nekkul mhm. waaye dane ko laka mhm. bu ne bu ne koo chakarta ko yi day mel ne da jàkkaarloo suñu borom moom moom suñu borom du ko féete ginnaaw mukk moom ah di ko sant ci xéewal yi yiw yi ci li muy binde di ko sant ci limi euh, li muy taalif di ko sant ci xaraf yi nga xam te nii moom lay jëfandikoo ba mën a ba mën a bind lim lim lim lim lim li mu bind ne ko nag maa ngi lay sant ci laka shukuri rabbi min muharrami li xatmi sil xijjati xatmil xoromi maa ngi lay maa ngi lay sant cant goo xam te nii maa ngi koy tàmbalee ci muharram yi nga xam ne am mooy tàmbale mooy tàmbale at at mi atum hijri atum hijri te mooy tàmbale atum ashhurul xorom yi li xatmi sil xijjati xatmil xoromi wax ju neex na ju neex a neex la uh-huh. yoo xam te ni mi ngi koy sant waaye mi ngi ci jàngale waale waaw solo mi ngi ci jàng mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci jàngale waale uh-huh. ci la indee uh, nag chakartuka uh, yooyu mu doon indi chakartuka uh-huh. allahuma bil mi daa di maa ngi lay sant ci daa yi may sëpp di uh, di ci bind di la tagg ak di ci bind di ci tagg yonte bi sallallahu alayhi bind di ci julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa di ci bind di wane sa sa sa sa sa xéwal yi daa yooyu maa ngi lay ci sant waaye chakkataka allahuma bil bil bil bil xilaam maa ngi lay sant ci xalima yi nga xam ne moom laay binde ndax boo yee daa te yuroo xalima yi joo joo binde doo bind <laughs> doo doo doo bind maanaam mm-hmm. détail yooyu xel oh. xam ne bawul dara bawul dara daa ji daa ji muy jëfandikoo mm-hmm. ci man manu suñu borom mm-hmm. ca la ca la amee détail détail boobu fàttewu ko ko xalima ga muy bindee ci kat nag suñu borom ci la ci la ci la amee fa fàtte fàtte fàtte ko moom tamit chakarta euh, ko allahumma bi salaati julli yi may julli mm-hmm. te julli yi may julli yaa ma may xéewal gu ma man ma man di ko jullee mm-hmm. ba noppee nga ma nga nga ma nga ma ci euh, faye euh, jox ma kàttan gu ma mën a taxawee mën a sëggee mm-hmm. lépp maa ngi maa ngi lay ci maa ngi lay ci sant chakarta ko allahumma bi siyaami maa ngi lay sant ci woor yi may woor te am <laughs> xéewalu man man man man mën a jëfe jëfe sa ndigal yooyu <laughs> te yaa ma ko defal xéewal googu chakarta eh, ko allahumma bi taxarruqi activité yi <laughs> activité yi may def yëpp eh, da ci ma ne jëf jëf lu baax maa ngi leen ci sant chakartuka mhm. allahumma bi sukkooni maa ngi lay sant it ci dal gi mhm. yëngutu sama yëngutu sama dal lépp maa ngi maa ngi leen ci sant mhm. mooy bayu bay bay bay bay bayiwul dara daal bayiwul bayiwul dara waaw kon eh, muy lu am am solo loo xam te nii lu ma ta saxaw seetloo la man a ma ma ndax yàlla bu la santee julli mm-hmm. nga mën a euh, jox la cër yow mën a mën a julli ndax wala santoon euh, julli ba noppi jox la cër yoo xam ne nii mën ngaa julli ne la del ruko te mënoo sëgg mm-hmm. wala mën naa del del sujjoot te mënoo te mënoo sujjoot mm-hmm. <laughs> waaye nam nam nam bind sa sa nam bind sa yaram ba nga xam te ni bu la neexee nga sëggal sa sa sa yërëm sëggal sa bopp bi gestu yëkkati say loxo say loxo di wax ci saw làmmiñ naan allahu akbar di man di wax subhanallah yi te loo ceef mu bindal ci bindal ci aw yiw dañ ko ci war da ko war a jàngat di ko di ko di ko di ko ci sant maanaam bind gi la bind rek doyoon na mu sant la dara nga def ko te du la fay mi ngi noonu kon lu la ci tegal rek loolu ak cant la bu ci war a dolleeku kon mu mel ni waxtu yi def ñuy bëgg a dab eh, sëñ Moustapha Lo tubarkalla waxtaan wi di ci nekk ci ay xéewal kenn xamu ko yàlla tege na ci xam-xam am na solo alhamdulilah eh, wax dëgg yàlla ñun am nañ mbégte loolu bokk ak yow <laughs> waaye tamit fi ñuy jeexale mooy mm. eh, mooy ban dénkaane moom ngay dénk ñi nga xam ne mm. ñoo noppi mm. ngir màggali ca tuubaa nga xam ne maanaam ñoom ban taxawaay lañ fa mën a taxawee eh, ngir ñu gën a rafet njottu ci seen màggal seen màggal tegu ci fi nga xam ne moom la ko sëriñ bi bëggee dañ koy waxee ci tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil janna gis nga jërëjëf suñu xarim ci laaj bi nga xam ne nii moom la ñuy tëjee waxtaan wi ndax képp koo xam te ne yaa ngi waaj a màggale mm-hmm. war ngaa waaj wattaayu euh, ak sellal maanaam raxas sa xol ba nga xam ne dara loo def loo xam ne nii da koy def ngir wane woo mm-hmm. dañ dañ dañ ci dañ ci sab xol mm-hmm. nga xam ne doo def dara loo xam ne nii bëgg bëgg ne euh, nit ñi gis ko ndax euh, gis nga ku laxas jël sa jëmm jël sa bàyyi sa lépp ñëw tubaa ne da ngay màggal da ngay da ngay màggale yi mooy yaa ngi liggéeyal yàlla mhm. ci toolu Sëñ Tuubaa mhm. te yaa ngi liggéey ci tool boo xam te nii maanaam euh, lu fa waay ji mhm. maanaam mu delloo lu lu lu ko lu ko sa jort kon nag war ngaa war nga waajal kuy kuy kuy bayi fokk war ngaa ruuj ruuj mooy waajtaay waajtaayu mbay waaye booy bayit war ngaa xool la nga xam te nii du yàq mbay ma nga waaj nga waajale nga waajale ko nawet nawet bokk na ci li yàq mbay mbay mi mbayu màggale mii mooy euh, di jëf loo xam te ni. da nga daan euh, gis gis leen ma gis leen gis leen ma rek. gis leen ma loolu dafa dafa dafa dafa bari lool ci jamono ji jamono jamono ji. donte it leneen nga jëf loo xam te ni mënees su koo ñàkk gis. waaye bul ci jublu wan ko nit ñi. na ko jëf rek te yàlla te te te yàlla tax. loo may defal nit wala looy def ci jëm Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ji yàlla rek yàlla rek tax. boo ko defee incha allah da ci am yàlla da nga ci am dolliku. fa fa euh, la nga ca def fa mu fa mu fa mu jógee ndax dana barkeel. Euh, te ñu bàyyi xel it na wax dëgg yàlla lépp loo xamante ni sëriñ bi santaane ne ko ci màggal gi rek nañ ci bàyyi xel. Mhm. sëriñ Mountakha jël na kàddu. Mhm. wax na ay soñe yu am solo. ci nattu bi nga xam ne yàlla wàcc na ko ci àdduna bi. Mhm. xay xam na ne maanaam jaamu bi yàlla la rek. waaye nag sabab yi nga xam ne nii doomu aadama war na ko ci sabablu nañ ci bàyyi xel. sabablu ko nañ ci nañ ci bàyyi xel am solo lu ci lu a bàyyi xel la kenn di ko nekk rek euh, na nga waajaale loolu mhm. sabablu nga xam ne nii mooy sabab yi nga xam ne doomu aadama euh, mhm. sa mu mu mu mu sabab mhm. bu ñu demee it bu ñu jàpp ne màggal gi moom euh, ñi sant Seye ak ñi sant Touré ak ñooñu dañu jàpp ne moom maanaam lekkum yàpp la rek <laughs> ba <laughs> waaw dañuy jàpp ne moom lekkum yàpp la ak naanum soow moom dañu ci moytu loolu te ñu xam ne fu ñu toll war nañ di bàyyi bari njàngum alxuraan bi am na ñoo xam te ne dañ dugg tubaab ba génn ko mhm. duñ jàng benn xisib wala duñ jàng benn saar mhm. boo mënta jàng kaamilit mhm. mën nga ay fatiha wala ay falax ak naas wala astaxfirullah yoo man wala laa ilaha illallah nga jub def ko te eh, yéene ci ak jaamu yàlla eh, ñaan yàlla ci bopp ci barka suñu tubaab mu mu raxas eh, mboolem luy tilim tilim ci yow ci ay ayib ci te lépp mu mu mu mu bokk ci la ñuy taqdim wa ma min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa azama ajran lépp lu def lu ci lu baax rek man yàlla du ma ko sànq du ma du ma du ma ko du ma ko sànq def rek dinaa ko de dencal wa man yaqtarif xasanatan nazid fiha xusnan boo defee lu baax man yàlla dama la ciy dolli dama la dencal lu baax la nga waaye dama koy dolli wa naqtarif xasanatan nazid lahu fiha xusnan inna allaha gafurun shakur loolu sax war nañu ko indi ci. waaw ci cant yi <laughs> ci cant gi. inna allaha gafurun shakur yàlla ci moom maam maanaam du weddi jëf. Mhm. lu waay jëf ngir moom rek maanaam dana la ko da da da dana la ko dencal. Mhm. kon nag nit ki euh, nañ moytu lépp loo xam te ni luy yàq jëf la. Mhm. lu yàq jëf la nañ ko ba nañ ko moytu bu fekkee ci jëf lay lay doon bàyyi ko ci suñu jëmm jëmm yi nañ ko moytu. bu fekkee lu ñuy wax la ñu bàyyi ko xel euh, mooy moytu ko di ñaan yàlla su borom nag yàlla ñu taw feexale ba euh, ñu jëf jëf joo xam ne nii lépp la ngërëmam lay lay lay mën a jur amiin ko ni ko ni mu ko taw feexale woon Sëriñ Tuubaa daal yàlla nañu ko taw feexale amiin amiin na mu ko waxoon ne ya um mën yar ridwaanu min kulli wijhatin man Sëriñ Tuubaa maanaam ngërëm fu ne fu ne la may dëkkee fu ne la may la may la may ni mu santee ñi mu santee fu ne daal ko noonu lañ ko gërëmee fu ne waaw ya ummu niya ridwaana gis nga bayit bu doy waa la ngi si bi ya ya ummu niya mooy mi mi ngi may wut si mm-hmm. lan moom may wut si ar ridwaano mm-hmm. ngërëm ngërëmul yàlla mi ngi wut si fan la lay jóge penk la lay jóge wala soo bu ko li wu jaxatin ana yépp lay lay jóge di ñëw ah, kon nag nañ euh, te loolu moo ko moo moo ko jëf donte yàlla ko suñu borom moo ko taw taw feexale mm-hmm. waaye euh, ñii ay taalibe it mm-hmm. nañ ko sabablu ba nga xam te nii ngërëmul yàlla dañ leen di mën a jóg mën a mën a jóge jóge fene mm-hmm. ci seen i wax ak ci seen i jëf ak ci seen i nelaw ak ci seen i lépp lépp rek ñu ngi sant ñëpp ñi ñu doon topp di ñaanal ñëpp jàmm ak taw feex asalaamaaleykum wa rahmatullah incha allah ñu waxtaan yi dañ ko gën a wéyal fii ci Touba Argentine TV asalaamaaleykum wa rahmatullah kon mu nekkoon seen émission laay birante ci xësida yi maanaam mbindum sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon ñu àndoon ci ak suñu sëriñ suñu jëwriñ sëriñ Moustapha Lo wax dëgg yàlla émission bi tege ci xam-xam eh, maanaam ñu jariñu ci jariñ yu baree baree bare yoo xam ne yu ñu xamutoon la Eh, mu laay biire ñu ko kon ñu koy yokku xam-xam bi gën a kattan bi yokku wër gi eh, te yokku xéewal yi tamit wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte lool mu nekkoon fii ci seen télévision Touba Argentine TV mhm. kon ñu leen di dox daje ba beneen ajjuma insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim wa